sobreviva. assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum warahmatullah siyaar naa la yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm dinaa leen dal leen jaam nu commencé tey waxtaan bi comme nu ngi koy defee saa su nekk fas yéene ñëw toog continuer si suñuy laajtee suñu crédit du wax si suñu Sénégal comme nu ngi koy defee saa su nekk naa leen yàlla na nu yàlla defal nu commencé waxtaan bi si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulillahi rabbil alamin si katunu yalla sunu borom naa leen salaamaaleykum siyaarati naa len siyaarati naa leen siyaarati naa leen di len bege di len damo di len magal ye ñep nga ne dina len nak ah le national continue euh ñongi tok fu nu togon ba di xaar mais on n'est pas pressé comme nous moko waxé rek on n'est pas pressé on va attendre plus que trois jours deux jours xam nga que xaar at moom soo xaaree ba mu romb rek di parce que xaar xaar prouver prouver teg ne ko wala lu ne wala lu nit ne ni xaar ah en tout cas lu waaye ba si 18 safar 18 safar yegg si na yàlla na ko ak jàmm genn ak jàmm nu ñëw songu nak dekk bi ak jàmm lijjanti dekk bi xam nga tontu tontu yek jàmm ak salam waaw ñun looloo nu soxol de ñun de billahi tontu yee soxol ak nit ñu ñuy wax lu leer du mëna dugg suñu bëti ak ay affaire yu naan jabb le reste là billahi c'est le problème de tout un chacun parce que suñu ñu wo dombu doom la am wala dombu bu la am démé so soo xulleesee ba da nga naan ko jàq soo jëlee loxo da nga naan ko donc c'est quelque chose de concret voilà donc nag bakkan nag bu dund nag moom bay dox nag si dund life boo xam ne mooy lool wala mën a am lu leer wala xam lu leer dégg lu leer nekk si lu leer moo tax it daal comme ni ma ko waxee rek nous on est là patient toujours là avec euh, nos questions xam ngeen nous toujours là assis à attendre nous sommes toujours là assis à attendre comme nu koy waxee rek dara méttiwul dara méttiwul waaw lu metti yenn gars yi ñun loolu méttiwunu ñun daal lan moo nu métti mooy sunu sunu diine gii rek nu nar a jàpp di ko pasar pasaree man looloo ma metti mais su weesoo loolu ah lu waay def baax na léegi nag damay ñëw tey si benn wax goo xam ne ni que dafa ànd ak lii lépp ma yàgg di ko wax di ko expliquer mais xam ngeen Les gens, surtout moi, en Sénégalais, ils ne pèsent pas le pour et le pourquoi. Le bon et le mauvais. La, la priorité est une nécessité. Second hand, voilà nous nous def après. Nous dal gaay, ils mélange tout. Comme dès que nous avons que si nous commencer sur ces fondations, les choses les plus élémentaires l'eau source de vie électricité enseignement santé base base fondamentale mais non non Sénégal nous on commence par les monuments À Italie, ay euh, euh, les choses on ne comprend pas l'argent sort des poches des contribuables mais on eh, on crée nous oh, ça a été 200 milliards 300 milliards, l'argent du contribuable. À la fin, quand le truc est fini, on se rend compte que, non, ça a été financé par un autre pays qu'on ne sait pas qui sort d'où, que nous avons pendant un tel nombre d'années. Et toi, tu te dis, bon, maintenant, les Khalis, nous handicapés, parce qu'ils ont fait un investissement à un terme, à durée déterminée, dont le nous ramène Khalis back, am sen bénéfice. Donc, nous, avons nous sommes Google, il faut le dire. les gens, nous sommes di lijanti yenen gam addiya gi 18 safar gi loolu la nit ñi xagn crime yaa ngi noonu gis ngeen crime lu magal gi jaral nit ñi ray ay bakken ay bakken ñoñu agresser tout dernièrement ci deux voies liberté ci ci VDN bi événement su commencé yek si sénégalais du ñuy melni lu rakaju tabaski magal, gamu nit ñi dina leen jàmpaaka jàmpaaka jàmpaaka ba bul comprendre nangu ray sàcc fen njublan lépp rek pour xool lu nu yóbbu le pays va mal gars yi yorewuñu sas yi gën a metti léegi tout est bon pour yóbbu sas yi tout est bon pour yóbbu sas yi les gars font sont prêts à tout faire pour dem Ila Touba parce que ñoom ñoo koy dugal seen bopp yi dik bàyyi dafa graw de publicité xanaa gisoo leen publicité weeru koor nga yeew woor sa woor romb tali bi foo romb nu tegal la panneau publicitaire ay ginaar yu nu roti yu nu roti yu def nii ru soo xefulee balaa timis nga dog gisoo publicité nu muy def yow balaa ngaa wala sooy ndogu sax yoo da ngay bëgg lekk yoo yooyu noonu nga gis publicité lu ñuy teg sa kanam jàpp ko lu yàgg di ko def dafa graaw day dem ba day wash sa mind day dem ba day jouer sa xel màggal bi noonu la demee. deux ou trois mois avant non la avons commencé di dugg xelu nit ñi fo dugg gis na temps yi ba leen xewal turu da ngay dégg t-shirt yi hein, Safar, hein euh euh Ndiaye 18 hein waaw 18 hey business marketing marketing après gaay mer 18 safar, jël mo 18 safar bi marketing business hein ba pour le 18 safar léegi ça va faire un fléau léegi maintenant ça va être un truc tendance def kurus kurus kurus si emblème bi kurus leen def def 18 safar bind si san léegi ça c'est c'est quoi le projet gaa yaa ngi mer gaa yaa ngi doon di rayante si dëkk bi jàpp ay nit di leen rey rek pour mën a dugg si ay boutique sàcc xaalis bu ñuy sàcc gi rey bi crime bi deret bi yëpp Touba la jëm màggal moo leen ko jaral gars yi ñoo leen dugal seen bopp koo ne leen màggal bi dina toj nee naa la ñu am di jaar si kanam ni di leen wone ay millions di kii nangam ñooy duqi bët ñu yorul ba nga xam ni que ils sont prêts à tout faire coûte que coûte pour ñëw toll si loolu noonu c' est ça le problème salaamaaleykum maaleykum salaam diw joxe na dix millions diw joxe na cent millions diw joxe na cinquante millions bi joxe na lii diw joxe na lii mais nu nekk si suuf tamit da nga leen gën a bëgg maam da nga leen gën a bëgg dem àjjana Ils mais ils sont prêts aussi à vouloir venir ils vont être prêts à faire toutes les calamités pour faire partie de nous. et voici les résultats pendant ce temps nous la population nous ngi toog di di fecc di di raconter de la merde parce que nous tax rek le nee naa ñu c'est parce que eh come on ñu si ñuy c'est parce que nous sommes sœur wala du sen mbokk wala ñom sommes gu len nous nu nopi nous neutre mais gis nga fiek que suñu si nous mbokk wala mu dal ci kenn sommes nga dégg sen discours changer légui discours changé mais Nafiq selfish Sénégal ngi on est là assis à raconter des conneries jël ay nit ñoo eh come on come on jël ay nit yo xamné ils sont prêts à n'importe quel prix à s'enrichir sur notre dos when <coughs> I say come on you come you have to fool with me now fuck it sit down sit there there don't move There. There. Stop. Don't move there. sama guy, lu ma leen wax leer na ñoo ngi krimi nak nee naa nit way rey nen nit nii te ñu ko rey ñëpp paasu màggal la ñuy wuti billaahi wallaahi wal kitaab loo eh, eh, mais loolu la leen moo xañ jàmm nit ñi nelaw instant gi nu nu demee jël xaalis wone wala def ay affaire la ñu lu la dugal nañ ay affaire seen bopp lii ñoom di leen seem àjjana ñoom pour ñoom di leen seem àjjana yóbbu màggal yow nga ne yow da ngay màggale da ngay dem def du yàlla gi bëgg du fo yóbbu xaalisu sàcc xaalisu rey xaalisu njublang xaalisu drogue xaalisu bu bon ba pare nga dem bëgg fa am yàlla ya bàyyi instant gii nii agression yu ndaw yi gaay dañ ci wax ñu ñuy jam paak di nangu seeni téléphone lepp ngir lan ab magal señ bi mo ngi tok yonam new ci famille mo ngi ci jam do mom njabotam mo ngi ci jam mom yonam ci mom na gi ñew na magal gi ñew na affaire yi jaar yoon na gaay ngom nga lek yap nan boisson do fa deg waxu yalla do fa deg waxu yonent gi après ñepp daal di wat comme ça zéro et on perd quoi c'est ça c'est ça c'est ça man man ba am naal mo metti métti soo ma gisee ay jeunes yu tok di défendre ça là j'ai honte j'ai honte parce que li diiné amu si amu si dara amu si nyom seen bop suñu mënu ñu la wax lan mo ci am seen bëgg-bëgg bakkan rek non baay avec tendance boobu noonu ngeen créer Sénégal moo tardeel Sénégal baay moo tardeel Sénégal tendance wu la dajale ay baas teg fa toog fa ñëw siyaare tuwu kii nangam takk kurus teg fa ay genre kàll baay faal baay faalu kii nangam duul mën a fen soo waxee nu naan ay maandu ay kii fekk ñoo dàq duul duul lekk la ñuy def tendance boobu noonu moo tardeel dëkk bi kenn mënatu see am fulla kenn mënatu say jug am jom kenn mënatu say jug xeex lu mu wala xeex koo si wax ñoo ngi la naan yow malxiyaam yow malxiyaam waaw non baay yow moom da ngaa yàqu waaw yow moom seytaane da laa dugg yow moom da ngaa bëgg a àdd yow moom yow nitu ibli kii nangam yow ma yow waaw kenn xamul lan la nit ñi di wax yow sunu àdduna leerul. sunu àdduna ngi takk suuf nous nous vivons une vie difficile suñuy doom nous on est appelé mais léegi ñu ñuy wax waxu yow malxiyaam comme saa quoi yow balaa ngaa wax yow malxiyaam sa taat sedd mais nu gëm nu ay waxu dof yow nan bàyyi faal gëm ay waxu dof yow maanaam ni que yow malxiyaam kenn dellu seegul ñoom instant bu nu waxoon sax nee nañ day dellu su dellu seegul kay kenn dellu seegul dara leerul si yow malxiyaam nañ defar sunu àdduna bee gën a wóor. booboo gën a wóor mais toog di xaar loo xam ne wóor yow nag ñooñu nag jiital la nag di la wax nag nga xaar foofu ñoom ñoo ngi dund fii. j'ai mal au cœur quand je vois après des gosses yoo xam ne ni que tey jii c'est eux qui devaient avoir cette ambition ñoom ñoo ñàkk ambition pas yi ëpp leen nday ambition ba di leen di seen bopp yi booy toog nii ni ay con soo waxee nu naa la ay eh, yow ma waay naa ba yow kii bee ma dimbali bu yàgg non bu njëkk ba da nga doon sàcc da doon fen da nga doon def lu bon sëñ bi su dimbali di nga bàyyi sàcc di nga bàyyi def lu bon waaye di nga am liggéey di nga gën a mën a defal suba parce que ba ngay sàcc c'est pas da ngaa ñàkk fayda loolu laa bëgg toujours muy clair si bopp nit ñi bàyyi ba Sénégal amul bandi Sénégal y a que des gens qui en ont ay cri de détresse fam bàyyi ni wax ay délinquant fa ne y a que la petite délinquance bàyyi faal amul bandi yéen Sénégal dégg xoolal gisoo crime bu am tey jii Eh, dem si guddi kay xaw ma la crime boobu noonu gisoo benn ñaari ngeen di am si at bi fii xoolal ay fukk la gars yi di génnee par jour wala ñaar fukk hélicoptère yi du ñuy dàqante auto police yi du ñuy dàqante da ngay yore xaalis sax di kon kon di ko wane di ko exposé di wane ni que da ngaa yor alal guddi gars yi seet si la ku ko gën a bëgg ñëw jël si ko c'est le banditisme à grand échelon moo fi am fii gars yi du ñu nelaw booy loolu la nit am na si ñoom ne loolu mooy seen life mosunoo liggéey banditisme Sénégal amul. amul yaa de fii am na ay famille bu boo gën a dee famille boo xam ni que ñëpp bandi leen ñëpp papa yaay doom sët jarbaat yi ku ñëpp yor yooyu mandat dépôt ñëpp a ñëpp ku la gën a koo nga na ma kii loolu la ñuy dund ñoom c'est une affaire d'héritage duñ koy jaam mais ñun ñu nekk fii toog bëgg ñëw gëmloo ay affaires yu con bàyyi waal sëñ bi naa la ay dëdd moo lay yóbbu àjjana quoi yow da ngay dëdd da ngay kii toog jaamu yàlla téye xasaay di sëñ bi doo ñëw mu fekk ko xasaay sëñ bi moom doo ko fekk xasaay di moo ngi toog di xaar gaay yi dugg si eh yow nga wala dëddu mais moom dëdduwul lu nga jox moom moo ngi toog di dajale yenn yëpp yéen ñëpp yéen lu ngeen wala dëdd moom mu dajale ko moom dundee ko moom dem àjjana yenn nit ñi toog di défendre loolu di toog di mu jaral leen saaga jaral leen jug jaral leen wax gu bon saa waaye ngi toog fi xaftaan fu mu rafetee mu dagg jabar fu mu rafetee mu takk kër fu mu baaxee mu tabax oto fu mu naayesee mu commandé lekk fu mu baqatee mu kii ay kireen lay naan kireen lay naan day dund foo ko gis loxo yi nooy nepp ne leen yéen ngeen dëdd loolu muy wut loolu la ñëpp di wut looloo tax sunu baay yi doon liggéey looloo tax sunu maam yi doon liggéey Baay Faal képp kuy liggéey loolu ngay wut teraanga daraja mais nu dem ba nu ñëpp nag léegi nu xañ nu ko ne nu nen toog te ay xasaayit ñoom nuy dund suñu kanam que ñun noonu la ñuy demee àjjana ñun nu gëm ko kon que nous toog di si saagante di si dóorante di si bay faal après que ça nu ne ñun dañuy émerger comme ça on émerge na nga ko waxte de sëñ bi ay ay ay deux mille vingt deux mille dix neuf oto lay dawal dëdduwul la dawalul saret dawalul voiture dawalul deux cent cinq dawalul quatre cent mbaar dawalul bawol bawol dawalul dara kii eh deux mille vingt nouveau modèle oto yeeg ay massage oto yi nga xam ne que si canapé yi day ay massage ak ay chauffage ay écran climatiseur lépp lépp yooyu la saawaay di war day gooma yoo xam ne ni que te Sénégal tali bi lu mu bëri kàmb bëri kàmb bëri kàmb auto bi su ñëw su si romb day melni ko xolal jaarul si kamb yoy la señ bi señ bi dëdduwul de señ bi jabarami jabarami jabaram yi duñu muuru jarabar yi dañuy ba mu baax guddi gi di ko wala mu len di bot ñuy feccante ñu koy lëmbalal bu baax yow nak bëggo dund bëggo adun bëggo dara nga ne da nga lu dem ki tok di kiki, mom mo ngi koy dund de mo ngi koy dund te mom mo la wala yobu aljana Nen toog Nen toog rek bala noo comprendre ils vont nous finir tous ils vont nous finir tous bala qu'on comprendre nous tamit nak les jeunes là au lieu qu'on s'ouvre on ouvre la tête nous dem li jënt ji suñu avenir pour notre futur suñu njabot gi nu wala ñew tek tek ko mu jaar yoon nu mën nek ay ndaw ñu am ñam ay ndaw yu bokku ci défar dëkk bi mais non non nous sommes les, les sponsors même de cette connerie-là, de cette merde. Baïfal, compte-moi un milliardaire jeune au Sénégal. Tu ne vas pas le voir, jeune milliardaire au Sénégal. Non, regarde les pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Rwanda, les, ces gens des pays en... Vous voyez sont jeunes, regarde, nous y les jeunes éleveurs. ils sont des millionnaires. ils commencent à créer des entreprises yoo xam ne ils grandissent parce que lu tax il y a un soutien te ñoom am lu mais Sénégal wal ma fa jeune millionnaire amul ñoom ñëpp ay duulkat leen fenkat nekk si nguur gi di kii su dul su la newul Aziz Ndiaye ne la kii ñoom ay duulkat mais jeune bu liggéey Sénégal ba commencé lekk ay millions amul da ngay méritaat mani duul wala gars yi dund sa kaw looloo fa am yi wala yéew nu dem lijjanti suñu bopp nu nekk fi di fenal ay paa paa yi tëdd nga am seen tànk ba mu ne nii la caaral seni i kii nu leen koy maral affaire bi jurul jugul sax kiwul mais graaw na mel ni chingom nu leen koy maral mboq mboq mboq mboq ak suñu xaalis nun ñu toog di ko seetaan nu nangoo nag di tàccu nag naan wéy fa àjjana wéy fa àjjana wéy on va aller au duñ fa dem fenn duñ fa dem balaa noo dem paradis nu layal suñu njaboot gi yàlla nar noo sas te suñu njaboot gi yàlla nar noo sas nag xamuñu sax nan lañ ko nar a yoree nan la nar a demee ñoo ngi toog di xoole lu leen nar a yoree lu leen war a yoree lépp moo ngi si poche doomu xaraam yi hmm? moo ngi si poche doomu xaraam yi ñun ñoo ngi toog fii di wax soo waxee kii eh, nekk leen si rek man de nee naa man a ah, man de mën naa tëj sama gat wax dëgg fa yàlla. duma ne yorna duma ne tamit ndona waye xifuma ma ngi suturlu wow, fuma nek man na fay suturlu ba dem mais damay ñaawlu samay samay morom yu nga xamni ni ñom si nii lañ ko bëgg a si position bii ñaanaatu topp si ginnaaw toog jooy waaw ndogalu yàlla la waa ken dimbaliwu ma waa jàppalewu ma dun maa seetaan kenn ma jàppalewu ma dun maa nu la jàppalewu dun la setan nga setan sa bop yow tamit ñew tok ah way la doo neex a dimbali doo neex a dimbali kenn dimbaliwu la duñ laa kenn jàppalewu la duñ laa seetaan yow tamit nga seetaan sa bopp yaa su la dimbaliwulee kenn jàppale nu seetaan la nga jugal sa bopp dimbalil sa bopp va te battre do something Sénégal ngay gis koo xam ne day woor dimbal ba pare soo ko ñëwee teg ne ko bon ok bëgg naa laa dimbali loo bëgg a def amul dara amul projet amul création amul départ puusul demul départ moo ngi toog xam lan la yor dix ans d'expérience naanu café takkum poon xam na cant yëpp fu mu ngi xewee eh nga baas yëpp fu ñu koy baasee eh kuréel yëpp fan lay demee waxu Serigne Touba kay histoire dof léegi yow ñëw na ne ay waay waay tos damaa bëgg a liggéey wala grand bi waa kii ni nangam waa ni nangam nga ne ko bon ok kaay toog da ngaa bëgg a liggéey kii nangam loo bëgg def mu toog naa la wéy loolay problème bi quoi bëggoon naa def lii mais bëggoon naa def lii tamit yaakaar naa ni que su ma defoon bii sax dinaa am dara. mais bi ya karena naa yo tane yow nga tok di xol boleh leg léegi yow da nga beug nu dimbali la tu n'as même pas de plan tu n'as même pas de projet yow ki motan tax da ngay nek ci dara di beureng bërëng lay dimbali ni ñoo fekk la ci nu beureng la fekk nga xam ne kii la beug li lay japp si li lay def ci li la ki du ñuy rek dimbali la pam nga def sa dox ni ni xam nga beug eh mo ni wax gaay nek fi ni di di soo waxe nu ne wa non sama tons bi ya ak e nangam bay faal sun la sa ñep ñëpp bàyyiwee ñëpp la nga dimbali so bop waaw yow bul so bop jugalal so bop ah mais c'est quoi le problème mais yow nga bàyyiwaat so bop ñep seetaan la ñep bay la nga wat so bop dimbali wo so bop nga dem nek ci ginaaw señ bi naan yow señ bi ngay dimbali mais yow ya ko gëna wané ya ko gëna wané sama gay nañ wante deug on n'a qu'à se dire la vérité on n'a qu'à se dire la vérité Ça a nii Sénégal pour defar Sénégal pour defar ko dina jafe lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lool lool sax ay genre Baba ana mu sax moom Baba Ça sama enquête bi wow, Yen waki. Amna anket? enquête Di nalen gene, di nalen won ali usal. nu mu nangam waaye Gene fi ñu may ko terrain jox ko xawma kër lañ ko jox ak rek saa waay ñëw changé di fes jël jël documentaire bi yoon wu publier nu yëfu dof kenn xamul lan la fa publier ba pare ne fes il a disparu il a disparu sur les ondes kenn déggatul ana baaba baaba moom kenn déggatu ko waaw waaw de kooku moom dinañ ko gëj a dégg quoi dinañ ko gëj a dégg de non.

ci su ngeen xamoo su ngeen ne mais ndaysaan aduna ni la ñaaka xam ñaaka xam lu muy jur dafa bari ñaaka xam lu muy jur dafa bari yeen saay nga nekk ci ba foog ne yaa téegal gaynde gi fekk ni yoo mooy lool xam ni que Sénégal lu nu dal du jàmm cent ans wu fen suñu baay yi si fen sunu maam yi si fen ñun tamit nu màgg si fen simple question nu poser ko ça crée toute une zizanie toute une zizanie laa ilaaha illallaah toute une zizanie laa lay wax yëngal gars yi gars yi nekk fa di wax gars yi nekk di aalu ñii nekk si waaw booy yow moom waaw yow kii nangam waaw booy moom waaw yow alagu nga tontu leen ma xaw ma dama bëgg a xam expliquez-moi nu mu fa demee noonu nan la fa wax ba taajoo ah, booy xamadi nga booy yow kii eh eh eh eh, eh, eh, eh. non mais mais mais nee naa la taalaay loo bëgg wax rek fàtte sa des loo bëgg a wax fàtte sa des gars yi kenn du ñoom de kenn du ñoom lii mooy faj murit ma wal leen murit lii mooy faj murit كيدا حمدا وشكرا لازم غرورا رد ورا واستخسر غرورا فقمت لازما الذي مقدما Murid, murid deug deug deug deug bala nga gis mbektem nga gis contentement wala nga gis mu content bul ko wax si yonent gi yonent gi bul ko ko si wax bul ko wax si yalla Serigne Touba bu nuy mbubo sax di wax ni, duñ koy mbubo ni rek même Serigne Touba dañ koy waxal ni sa si mouride ni bi ngay am xam nga lu naan uhu ak sourire bu ndaw bi waaw waaw deug la waaw waaw waaw waaw ah, ba ba borom Touba kay moom waaw ah, jàmbaar la woon waaw waaw waaw <laughs> ak ça mais maam ñaari junni yi su commencé génn ñetti junni yeeg layaas yi du ñuy defaruwaat xam nga ni la ñuy toogee suñu farankulaayee toog si suuf du ñuy xaw a sëgg def nii xam nga ni la ñuy xaw a def mais gis nga xaay bi su jugee nii la ñuy def nii du lay jox tout yëggi ubbeeku carrément nga xam ni que nag les gars am si. wan la nag souris bi nekk sew naa la waaw nii nag loxo yi nag nga commencé leen gis nag si nag ngay gis nag non xaalis su génnee nga gis vrai murit lu mu capable ak lu mu kiiwul xaalis la ñuy jaamu billahi wallahi wal kitaab toog xool leen si fen vidéo yi allez regarder les vidéos am na souvent a wax gars yi ma kii man nee nii damay toog leen analyser di leen jàng dem nga xool seen vidéo yi cante ki nangam fu señ bi tooga ki nangam tant que waxtaan baa ngi dem ñu leen di wax sa si waxu sëñ bi même bu nu wax sa si waxu yàlla ke nen wax sa waxu sëñ bi du nu daanu la da nga leen gis nekk fa naa est-ce que waaw kii mais une fois que battre yi même gars yi suñuy mbëkk tibi di kii su battre yi di commencé la su battre yi di commencé joxe addiyee gars yi di jaabate mille francs deux mille si la gars yi di daanu pour gën souvent c'est comme si ce sont des ay plans yu ñuy def seen biir pour gën a yokku yeneen gars yi jom nu joxe parce que c'est grave si on soo jógee commencé joxe gars yi di daanu ngay dégg si côté kii yuuxu fa eh, kii daanu fee eh, yow da nga naan non fii non bii ma la gars yi di jug di joxe di une affaire bon c'est est dañ hypnotiser ce sont des plans nous si bëri ñuy daanu sax si biir cantee ay affaire ñoo far ñoom xamante ne su cante yi jeexee fu ñuy que yow doo ko fekkee ñoom ñoo leen di jox paasu ñibbi donc ñooñu daanukat non lolo loolooy seen ligue comme tojukat yi. xam ngeen tojukat yi mooy gars yi di yor kuur yi si biir cant yi di xuuxal gars yi di ko dóor seen bopp ay kii ñoon tamit loolooy seen liggéey daa am ay tojukat gis nga si Baye Fall yi daa am xam ne suñu simmeekoo ni soo xoolee seen ginnaaw da nga gis suñu naan euh, am na nu ngi koy woowee benn genre bul lay que dóoru yu yàgg yi moo ko day dem ba day commencé benn genre tout comme tout day commencé kii soo ko xoolee da ngay xàmmee dóorukat ak kii ñun honnête da xam ne affaire mu dem si biir ku si nekk da nga am sa rôle daanukat yi sax dafay am ñoo xam ne il joue le rôle daanu ñom loloy seen affaire cant bu nu dem daanu fa yow soo la yàggee dem cant da ngay dem ba da nga leen di xamé ñom seen bi so baye xessa sa bala no daan da nga naan da ngay deg kenn ku naan eh japp len japp len mo gi daanu de eh di ah moo ñoo tay c'est des plans ay colé ñoo bëgg nekk fi di emmerder la population faire les fous sur les gens là nekk fi di dof-doflu parce que du leen ñuusul c'est tout. kay bari nan de nga nek ci cant ni soo nekkee nandi te ngay suivre balaa kenn di daanu da koy xam plan la daanukat yi ah gars yi tojukat yi bàyyi faal yi dañoo organiser seen affaire yi toggkatu café yeeg laaxkat beeg sikkarkat yeeg gisoo ñuy sikkar ku ñëw soo ñëwee suñu lay xàmmee da ngay ñëw nu tàllal la micro acca dem sa tëggkatu xiin yeeg njaajkat yeeg ñoom xamante ne suñu biiree ñun soo tëllee parce que cant yi du nga koy do soo tënnee e laaj bu géeje waaye ngee wala abdu bu grand Dakar eh kenn du laal njaaj njaajal ko mu taxaw mu njaaj njaaj bi sikar waaw samba ngee bàcca ngee kayta ngee kaay eh kenn du laal déggoo ma de ñu yegg si tamit kafe gi xam nen borom loxo kafe ah woo bàyyi kafe ngee kenn du laal tojukat tamit moo ngi c'est toute une organisation ñun ñoo foog ni que ces gars sont wala il font non lu ñuy def rien n'est

seen bakkan rek non ah safari safari da ma nee naa leen dem ak jàmm man de xoolal dem safari de ñàkk dem safari man sama yoon neew si parce que maanaam ni que damaa juddu fekk fii safar gars yi di safaronteel ba leeg te soppiwul dara si dëkk bi bop ba tey man mii sax safar naa ba génn dara soppeekuwul si dëkk bi ah dëkk ba nga gëna torox tay la gaay gëna gën la ndoxu Touba bi gëna bon gëna ah man kay dama leen naan nañ dem ak jamm ñëw fekkat nu fekk jamm nu xol ñom sen mbale mbale bi ñuy wax wala sen ndaw gi wala foog ne ñun seul dem safar wala ñak dem safar on s'en fout ñun dëgg gi mo nu ñor na leer mo nu ñor quoi motax man kon ma waxé rek. ndoxu Touba bi kenn xamul fa la toll affaire yi kii nan la toll feebar yi commencé na siburu yi gaa yaa ngi daanu benn par benn ah mooy loolu ñoom daal nañ dem ak jàmm ñëwaat fekkaat nu fekk jàmm Macky Sall moom teg na ay chartam en attendant les militaires yee ne qu'on doon on oh, tue mais on ne déshonore pas ma militaires du Sénégal on les tue on les déshonore et on les utilise comme des pantins sànni leen c'est les talibans nu dem du dóori seeni frère, con que vous êtes levez-vous pour la révolution si on se lève pas pour changer ce pays on va tous finir un à un tous autant que nous sommes n'a nekk fii di konkon la la la la ya kii nangam mais voilà nous na si ay con tout keroog ñoo génne naan ma leen dëkk bi Faidherbe ba ko moom wax boobu noonu ma leen wax ni ay wax boobu noonu ma leen wax na leen dëkk bi Faidherbe bu moo ko moom gars yi duñ koy siisu quoi gars yi nee na léegi ñoom ah non dëkk bi Faidherbe bu moomu ko dëkk bi xolo sunu dëkk la ñun sénégalais yi ñoo ko moom blablabla yéen ko what the fuck wat yi ñoo moom yow yow loo moom dang nga siy dogal da nga siy am dogal lu nga moom da nga siy am dogal voilà dëkk bi. fédar ya, ko moom ak boy Macron de lu mu wax ba da nga yëpp sénégalais yi quoi soo fam nan dekk bi fédar ko moom ak i mag ñoo ñoo ko ba mu neex bala ngeen di am lu ngeen wax ngeen dog ngeen mëna a am dogal dar ngeen mëna dundal seen bop mëno leen dundal seen bop Macron leen di dundal yore seen loi yore seen constitution yore seen lepp day wax seen président wax ngeen tecc seen gat suñu waxe ngeen bëgg tepp yu mais man dal

kilifa diine yoy di len ki ñoo fa téye su ngone ñook Macky Sall ñoy ànd reer ñëw fii nii du ñu dulloo du ñu fenloo suñu jógee bëgg wax suñu doléance kenn du ñu bàyyi nu wax wax gaa ngi noonu de nit ñi nek fi ah ka ki nek len si nek len si en a len bay no Macky Sall de moom au mo lu lijjanti nit ñi lu am njëriñ lu ki ay auto police la demoon jëndi ay liif defarat armée am tek donc fallait vous y attendre dañ ñi de soxla ay affaire alcool soxla ay ki kenn jugu si kenn waxul yéen xam ngeen ni que Macky Sall pareegul ak yéen yéen quatre ans te gis ngeen temps yi mu commencé def Sonko waxoon naa leen ko mais waxoon naa leen quatre ans sori na quatre ans sori na pour commencer battre campagne bëgg fee nekk tar-tari kaay nu dem li jënti dëkk bi ngeen nekk fii naan da ngeen di battre campagne campagne yu quatre ans mën na leen lu nekk xaj na si quatre ans lu nekk su ngeen xefulee balaa quatre ans nu éliminer ko ngeen nekk fi di jaay rëy làmmiñ di tëb di dalaki di kii nangam tëj leen seen gat yi ngeen ñëw nu dem li jënti dëkk bi dëkk bi yaa trop de problème comme new bu ñor foo laal mu toj foo laal mu toj ngeen bàyyi Macky Sall fële muy tëb di dal foo ne moo si ne nu ñuus doomam yi nekk si suuf muy lan maire yeeg député yeeg yenn gouverneur yu mu fi falak xam nga yi ñu kilifa diine di def nu fexe ba tas soutien am bii si suuf ñuus leen ba nu xam ne que ñoo ngi seen kaw comme ça moom 2024 su tournée du gis kenn kenn ko fa dugg fekk ñuus ne leen ba pare. ñëw li jënd mais may wax gars yi naan du ñuy campagne da ngeen di campagne ku nekk ñoo taxaw naan ñii naa may idi ñii naa may waaye deux mille vingt quatre leen leen wax de ngeen comme lu ne yàgg naa lu nekk di ngeen ko dégg y' a trop de marche di ngeen dégg lu nekk c' la politique de un moment waloo leen mer parce que lan c' est la politique c' est ainsi c' est fait politique moom su ngeen àggee si niveau boobu noonu la politique foog nga kuyon foog nga doomaraam foog nga bandi et tamit mooy loolu et politique. c'est politique quoi mooy loolu bu ñu ah non ba ma yow su ma waxee ah booy yow xamoo lu ngay wax yow booy yow kii nangam yow kii mën na leen bàyyi man si loolu laa manqué dama doon toog nii di seetaan seetaan lu souvent tele di am ay dil yu xew sama ginnaaw may ngaaka ngaaka lu mel ni ku yëgul di dégg ay affaire si ay je me suis formé dans le tas j'ai grandi sous ces pays ambassades yeeg conseil c'était mes lieux de de jeu c'était mes lieux su ma jàngi ji woon ba wàcc wala dem def deuxième kii sa de pause si ambassade kii laa doon foo bureau nit ñi bureau nit ñi dugg fi génn fii dugg fii secrétaire fi wàcc fii premier kii nangam j'ai ah xale la xale la xamul dara ah xale la xale la eh ça ça ça ça ça ça c'est resté c'est resté ñu wax ay di tekk fii di di ah, nen si ne si ne c'est pas l'âge qui compte c'est l'expérience et la tête ouverte di nga ànd ak mag mu mag la fop ngeen di dox guddi mu lu ngay gis du ko gis

Ablaye Wade daa dóor compte bi yëpp Ablaye Wade daa dem yóbbu na xaalis bi yëpp fekku fi dara xam moom boobu la may mais yéen Macky Sall ba mu jógee fi kenn du ne sa compte bi fekk nu fa dara de mais plus bor moom ba mu fi toogee dooli nañu dix mille milliards de dettes en moins de huit ans dix mille milliards de dettes en moins de huit ans record fait dans tout l' Afrique kenn bu ko gusee wax du ñuy xaar ba mu wax ci nag léegi presse doomu xaraam bi du si soog wax mais fii mu nekkee au pouvoir kenn ñemewu koo génnee parce que dañoo ragal mu am nu mu def ak ñoom wala mu am kii du ñuy xaar nag ba mu jóge fi nga dégg leen ñuy mbéj mbéj mbéj mbéj mbéj la presse doomu xaraam la mooy loolu. attendez seulement attendez pendant ce temps milliards yooyu ma leen limal kilifa diine yooyu noonu marabuyon yooyu noonu doomu xurum doomu xorom yooyu noonu doomu xorom yooyu lek nañ sen wàll ñong ngi dund bu baax tok di nu cër parce que c'était notre dernier rempart hein ñom ñoo waloon frapper sur la table su suñu commencé ngungune di yuuxu ne ne eh, yee taalibe yaa ngi wax hein talibé ngi ñew seen kaw mais non non xam la leen wax taalibe yi noppi leen tok leen alalu aduna ki nangam ñun dinañ ko ki fi daal àdduna alal soko ko kiiyee du la dugal àjjana du la jëndal bàmmeel jaamu yalla mo lay jëndal bàmmeel ok nit ñi wax leen nu si yalla fa kan waxu leen fa yalla. fa sëñ ba lan leen di wax sama maama julli woon sa géej bi sama maama riñaan sama maam a dem fee andi neen kaaba gi jaaral leen ko fii maakaa ngi fële diw tooy ne def ne ne raakee ah, fàtte neen yàlla léegi noonu la lay dugalee àjjal ñoom nag ñoom ñoo ngi lijjanti seen bopp ñoom dëddawunu ñoom dëddawunu ñoo ngi lijjanti seen bopp comme nag man loolu laa wala ne leen bàyyi fa nekk leen fii nii rek ne nekk fii nii rek ku nekk xoolal di wax di ki di fokk ni ka affaire bi ràcc jëmale so bor la Baye Fall ràcc jëmale so bor du arranger situation bi ràcc jëmale si boru ñëpp moy tax dëxin bi sedd mais dëxin bu tang wala mbaxal bu tàng ne ngay ràcc so bolé ça ne veut pas dire que bol bi sedd na de sa place kessé sedd té nak xolal yu nekk ci enen côté yu tang yi su sa place day tangat ba tay c'est comme lu nane setu ginar bale génnee sa buntu kër rek foog na ni que set bi pare na non lu nga bale ba si buntu kër gi ku lay set si wala kuy duggaa wala xale yi suñu foosee bay dugg duñ koy si kër gi sooy bale kay moom sooy setal na set génn benn yoon na fi jóge na fi jóge benn yoon man loolu laa gëm mais nit ñi nekk fii nii ah yow boo yow kii yow yow waay ah nen sa ne nen sa ne man nee naa leen man instant gi nii damaa dem ba damaa découragé si sénégalais sénégalais instant gi maa si dem jàpp ndànk si diine comme nu ma leen ko waxee man moom nen ma tontu moo tax ma jàppale ko temps ñu xiti pour ñu bëri ñu mën a comprendre ah Moussa lu tax kii Mouridi ma ne leen Mouridi di ma raison tax ma jàppale leen maa waaw yow même fii nekk di wax politique ah jarul politique affaire bi du politique Sénégal lu ñu tax du politique si leen nekkoon di wax di wax mais soo ubbee sa xel nga ubbi sa bopp bu baax nga xool nga xam ni ko politicien yee ne su ñu demee ba am sa doole si dëkk bi daa am ñu leen dooleel ginnaaw seen baay tubaab yu leen andi. nga xool bu baax nga xam nañ noo leen doole mooy ki difa diine yi ñun ñu jox doole te defuñu dara amuñu benn njëriñ si dëkk bi ñun ñëpp ñu dem rallié yewu seen gannaaw yaakaar ni que dinañ wax dëgg dinañ ñu féetee dëgg mais à notre grande surprise ils ne disent jamais la vérité ils ne disent jamais la vérité te heure cëru su amee nga gis leen fa ñu toog comme kay loolu soo bëggee dàq ji politicien hein hein te fekk yow politicien bi ku mu yaakaar sa moom moom moom politicien bi ku mu yaakaar àjjanaam ñoom ñaar ñoo ànd di sàcc. est-ce que am na sens amul sens nañ dem lijjanti politicien bi ku mu yaakaar mais sunu diine gi man moo tax ma dem dellu moo tax sénégalais loo fa wax kenn du la faale sénégalais mënoo ko ba jamono ji mënoo wax kenn kenn kenn dara ba mu dugg kaay leen nu génn marche kenn du marche kaay leen nu génn dem kii kenn du kii sëñ bi woote daane ne kaay leen nu génn marche pour passeport diplomatique boo yëpp génn gaa yëpp fees si mbedd bi ah sëñ bi jàpp benn sëriñ bi jàpp doomu jàmbur euh, jeng ko ñëpp mer ne ah nañ ko def leçon nañ ko kii ni nangam gars yëpp génn boo kaa leen génn Frank Timis doon na suñuy contrat Aliou Sall doon na suñuy milliards Macky Sall ak fonto gaa yëpp na la ah bàyyi faa la ngay génn fii rek ñu lay dóor lacrymogène di la sonna tëj la fi kaso yàqal ah fii yooyu dara jaru ko garaaw nen dem jaamu yàlla gën nen bàyyi kii gën na ah mais bu yàlla bu ko bu sëñ bi moom bàyyiwunoo ak yàlla de boobu dunoo dem naa ni si lacrymogène yi bu baax yeah dem naa ni si lacrymogène yi bu baax parce que ñu ne lan sëñ bee ko jar da leen di gis nag nu aalu dem yàq lu ñëpp bokk bàyyi lu toll ni tribunal l'argent du contribuable lu ñëpp bokk gars yi tojate ko yàq ko parce que nee na lan seen sëriñ boobu noonu jeng nit bi moom walul dem jeel waaw kooku du dem kaso waaw ah. moo tax it Macky Sall ba mu comprendre lo boole su wax ki corona daa ñëw Macky Sall jeng ñëpp ñëpp la Macky Sall jeng Macky Sall jengul kenn tout le pays la jeng jeng leen ñoom ñëpp caw leen fépp leen comme nu ma ko waxee sama gaay mooy loolu quoi instant gii nii ñun nañuy toog rek nañuy toog rek di jooy sunu papa yee njëkk a tàppe tamit sunu papa yee njëkk a nangu ñëpp sunu baay ñoo njëkk nangu ñëpp ñoo gën a tàppet ñoom ñoom nu tamit bàyyiwuñu kenn xeex ça aussi c'est un problème suñu papa yee njëkk tàppe ñëpp ñoo njëkk tàppe ñëpp nangu jël seen doom yi jaay la mais ça va finir de lii ça va finir mënul continuer mënul continuer nee naa leen su ngeen ko seetaanee mu continuer lii nii bi xew Sénégal mooy am mooy lan les crimes horribles la gis ngeen plus dëkk bi di métti du gis ngeen crime yi nu muy horrible du gis ngeen crime yi nu muy méttiwee tant que nag eh lii ñun jugunu si ba lijjanti lii laa leen waa les crimes vont être de plus en plus odieux parce que àdduna gi dafay gën a di yaatu nit ñi di gën a di am ay yiite seen kilifa diine di leen gën a sas wax bi di gën a nekk fi booy nag di gën a dof pour joxe sas yi ils sont prêts à tout fair ils sont prêts à tout faire keroog Kaolack leen fi fekk benn booy bi këram rey ko jamate ko tout dernièrement crime boobu noonu ba léegi n'est pas élucidé a xamagul kan ñoko ray kan mo def loolu doomu jambour ñoo ngi lijjanti ba léegi pareegunu ñu ñëwaat fekk encore gardien bu ko faat bal faal suñu si suñu bop nous leen wax ngeen di leen cette histoire Ce délinquant yoy ça va aller au banditisme à la grande échelon parce que les moyens maintenant vont déterminer l'homme parce qu'il faudra survivre Macky Sall xiifal na ñëpp tey nëpp milliards yi nu koy dégg ba pare mu nekk si ay saak di doxantu tëju si ay kër nit ñi suul ko si ay ay ginnaaw kër ak ay taatu garab un moment les gens nee naa la ñu si gën a ils vont venir les prendre à coup de sang nen a jug si suñu bopp moo gën di dof-dof ñoom ñooñu nag sécuriser nañ seen bopp su suñuy doom leen jël ñu leen di sécuriser mooy armée bu ñu waloon protéger ñoom lay protéger ba si sëriñ si ko koo si gis moom doo dugg seen kër ñoom sëriñ si nga xam ne que seen kër yi wala doon am buntu. du noo waroon di nekkante ak nit ñi léegi sëñ si sax moom xam na ni que nekkul si lu wóor moo tax moom protégé na boppam waaw sëñ si walu loon am bunt këru sëriñ bi am buntu kenn xamul lii lan eh? këru sëriñ bi am buntu kenn xamul lii la sëriñ boo xam ne que du ñuy dox sa diggante yaag taalibe yi kenn xamul lii lan la kenn xamul lii lal léegi yow nan la la nit ñi di siyaaree nan la la nit ñi doy na waar waaw yow Sacha nee na dix-huit safar se astafurlah xam ngeen dix-huit heures xaale ma wax leen yee ba ba léegi yeen tasagoo leen dix-huit safar leen koy génneel dix-huit safar takusaan takusaani saanu si yan heure lay dox cinq heures six heures ba timis hein yooyu leen doon wax ba naan sa sa saanu ndar yeeg affaire yi ba kii léegi tàkkusaanu tuubaay dix huit safaar lay doon dix huit dix huit heures dix huit heures ban heure la six heures léegi dix huit heures ba neuf heures hein six heures ba neuf heures six ay neuf non léegi neuf heures bi di nga mën ne fa laa ko génnewee huit ak un mooy neuf no six ay neuf léegi six heures ba neuf heures dix huit safar léegi xoolal di takkusaanu takkusaanu Touba te nee na nag ku fa jur doom ku fa am doom wala ku fa ñambaxu sambaxu loo fa am waliw lay doon donc nag la reste nag au mourid de le monde le mortali boobu ngay gis sëñ bi teg pliant bu baax bi si taatu garab bi sol noir fumé wu takkusaan ah waaw sëñ bi noir fumé wu takkusaan ma ne ko mbete miop wala mbete gumba ñëpp sa doo sol noir fumé mbete gumba waaw noir fumé wu tàkkusaan laa lay tegal nii ba guddi gi nga gis sëñ bi toog si bâche bi sol ay noir fumé ne nii man moo ngi nelaw kii xamul lu jàng yi di xew nelaw na suy départ yàgg ya wala mandi na sa mandi yi xamul yi wala moo ngi si xale yi di xool di yëndu en tout cas daal senegal a ngi noonu ba ba léegi tontoogu nu ma lu ñuy safaar lan la mais damay xaar ba nu safar ba paré ba lek bay 10h xamna suñu ñëw dina ma andi tontu yi waaw dina ma wax safar bi la la damu sëriñ bi ñëw sëriñ bi voilà ah, légui à quoi xam nga parce que lu toll ni magal bu toll non annuel nak nga am loy magal ça doit être lu nane symbolique mom la nane symbolique ça doit représenter quelque chose ça doit être quelque chose bo xamna ni que suñu xolé nane ok c'est li l'exil ou le retour d'exil gars le retour d'exil man na leen ay eh, waaye tubaab baa depuis combien d'années nous ça et après bi ces petits cons, là ils sont en train de célébrer les jours qu'on les a ramenés leur grand-mère là regarde les ils sont bêtes là ces petits cons ah ouais c'est comme ça ah ouais ils sont contents ils sont heureux qu'on les ait amenés leur marabout là ouais ce gars il était là-bas à Libreville hein. Il était derrière les petits, les petits miennés, les batekés, les bapounous, là. Il aime, il aime les bapounous, hein, ce gars. Ouais, regarde-les, là. Et il danse, hein. il danse bien, hein. Il danse bien, ouais, ouais. Oh, oh, my God. Il danse bien, là. Ah ouais, tout va bien, nuire là, Alain Parce que, xamuñu la il di màggal lan la yow ku jàpp sa mam sept ans 7 mois yóbbu ko andil la ko nga magal ko su n'est neexee ngeen mere ma si de mais man jox leen ma signification bu doon di leen ma ne départ gëm gi mën na leen lu le jour boobu rek lañ ko choisir quoi. pourquoi c'est là pour toujours vous rappeler ni que tubaab bi ah tubaab bi sommes là le 7 ans 7 mois de chaque année ngeen koy màggal vous allez jamais oublier cette histoire ça va toujours vous rappeler le bottage de cul le bottage de fesses là ça vous le rappelle chaque jour donc vous allez jamais vous rebeller Serigne Murtala sera le dernier à essayer à pour ah. koo xamne chaque instant nou lay fatali bu nu ñuusé sa mam 7 ans 7 mois andil la ko delloo so le na leen juk jug sa moom moo leen naan gi mais bis bu sa mam bi ayen kama blank te koku 7 instant nou la kay fatali donc lu mu la yoré lu mu la dencal bis bu waxé bis bu waxé ah doy na waar de man de dama bëgg a xam rek kenn newul lu bon la kenn newul bon la ku nekk moom soo sañ de toute façon sax fête l'indépendance sax ñoo ngi nii duñ koy màggal parce que màggal mooy célébrer quoi màggal mooy célébrer pour mu leer quoi nu wax ko gars yi mën koo comprendre même fête de l'indépendance 4 avril duñ koy màggal ah mais léegi suñu demee bay màggal ab 18 safar 18 safar motax man ma laajte c'est quoi le point parce que mu am symbole que mu am signification que mu am sens Ya da ngi comprendre da nga gagner mama dan wala mama gagner wala amna victoire wala amne revelation révélation bu la yalla andil wala amne lèr bo xamna ni que lan la si ban la si mbégte leeru mbégte sëñ bi ñëw na sëñ bi ñëw na sëñ bi ñëw na sëñ bi ñëw na la down down down you gonna stop you be in training you stop to be what the fuck start to learn man eh, de moma ina euh ina jaawar xam nga ñooñu so len si pousser xam nga falal lay yob waaw tabaske ngi ni yene ngi ni tamit de ngeen di tour deret de ngeen di rey xaar man la waaw tabaski da am sens tabaski lu tax nit ñi di ray, da am sens islam du ay fo nee la islam kay ba ci alif alif alquran alif bi rek alif bi lu lu ko taxawal sa laalo so laajtee ñuko jang nu xam nu waxamal la xam ko xolal araf bu nekk ci alquran dafa am sens du way fo mais ñom waxuma la xar rek de ñom deret buñ ci tour mom ha ah, gelem nak ganar xar nit sax duñ kay ray nit gaa yi nit sax duñ koy rey masalikul jinaal boobu noonu seen jumaa yi kii ni wax ak di expliquer wax leen ma benn ci seen jumaa yi bu tuurul deret man maa ko wax nan ma wax benn ci seen jumaa yi bu tuurul deret muy jumaawu Tuuba muy masalikul jinaan nan ma ci wax benn ay nit ñu nu suulaale si fondation bi nan fi jéem a nekk di dof-doflu ay nit ñu liggéey ba ci bi am ci ay tank yu dam wala déssi mo ngi non ay seen projet bu ñu def ay deret ci ñom mënu no def projet mu dugg ak jamm genn ak jamm té bakkan ci faatu parce que ñom lepp lu ñu def da soxla deret gaay yi ñoo nekk ci jub tout dernièrement Touba sa kanam yobbu na ñaar ñu na ñaa ñaa ñaa ñaa na na ki ni nangam seen i waajur ñoo ñàkk te pareegunu pareegunu de nen dem na gars yi bañ a kii na nekk fii di xoolal koo wax mu siisu mu kii yàlla ak yonente gi point déggoo lu nu wax alquran point ku ko mënul firi ku mënul expliquer lu ngay wax ku mënul taxaw lu ngay wax lu nga wax nga jël ko wan naal ko wala nga roof ko foo xalaat roof ko foo xalaat nous on s'en tape de nous on s'en wax gi day leer xam nga tey naqarlu naqalu mais sooy naqalu da ngay mën a jël dara nga teg ko si table bi tey xool leen man nan wax ma nee naa leen man sama wax bëriwul parce que man du man maay rek man damay wax samay wax ba pare ne fes dem toog fële di leen seetaan gars yi nekk fi di yuuxu boo yaa ngi fi de gars yaa fi ñoo xam ne ñoom loolu rek mooy seen passe-temps seen favori dugg YouTube a ngi nii vidéo yi duñ fi dañu ki nangam am na sax ñoo xam ne ma pass leen ay vidéo léegi gars yi montage ku léegi nu sàndiwaat ko mu duggaat si internet bi ku nekk jëriñu ko parce que les vidéos sont la n'empêche que gars yaa ngi ko gis yi di mer ñun waxuñu de man defuma man musuma jàpp ñëw def leen non au contraire man damaa ñëw jël sama bopp soo joxe ko si yoon bi defuma de mais gis si nag def yi nag moo tax ma génnaat si ndànk jëlaat sama bopp man lu may wax nii lépp ñu ko defa ngi ne cell toog kenn ñemewul wax ak ñoom lu may wax ñemewoo leen gëstu noolu gën man ngeen yëpp parce que lu tax nee naa leen da ngeen a ragal vous avez peur de la vérité qui va sortir man defuma am nga laa taxawee nii cëppeel cëppeel laay def dama sonn di cëppeel j'en ai marre damay cëppel voilà point barre ñu ko defa ngi noonu toog kenn ñemewu say wax ñoo ngi noonu di leen romb chaque jour da ngeen siy wax fooy foo foo en parler sama gars mooy loolu de man moom comme nu ma leen ko waxee instant gi nii nous sommes au 21e siècle nous sommes au 21e siècle Wow. jamono jo xamné ne lu way xamul mom la neex jamono suñu yi mais parce que c'était pas de leur faute pourquoi c'était pas de leur faute ils avaient pas ce que nous avons aujourd'hui Moi, cette technologie l'internet et nungawati. beaucoup de xam bibliothèques yi presse ak télé yu bëri yi tamit mais presse su Sénégal moom jaru compter si presse loolu yàgg naa ko fee wax di live di wax gars yi mu ne leen presse su Sénégal yëpp dañoo waroon dem toj ko toog fa fa naan caayin parce que amalu nu njëriñ nu daal di jàppale yenn youtubeurs yeeg yenn blogueurs yu ndaw yi nekk si ñoo ëpp njëriñ sax chaîne yenn presse yi presse Sénégal yi c'est des corrompus su ngeen toppee presse Sénégal ba si biir yéen ko tey parce que majorité wu ñoom ñëpp seen i patron ay politiciens leen nan la politicien mën a amee télé. premier truc hors la loi ngi noonu ñun ñu toog seetaan c'est non c'est c'est illégal illégal politicien amoo droit am presse c'est illégal mënul ne wala soo amee droit soo amee presse daa la ko xolal yow say dara walu faa dox illégal mais ñun ñoo ngi doon toog seetaan suñu chaîne télévisée yëpp du nuyu seeni patron sax du nuyu woon nii clairement ni que ils sont avec des groupes politiques wala ñoom fii leen far ba si on boobu non El a Ndiaye tout dernièrement toogoon di nous wax nga sacrifié comment on va savoir la vérité comment on va savoir la vérité ils vont manipuler toutes les toutes les vérités avant de nous le donner voici le problème et on est devenu comme et ça part en catastrophe quoi ah nous toquons du certains mais man j'ai trop mal j'ai mal là là wax gars yi moom saaga bi rek saaga bi rek saaga bi de mom neena len mom di ngeen si joxe dépenses añ ndékki ak reer waaw waye tontu mom di ngeen ko ci mos a parce que wax gi mom lu si nek mo mak seen bop quoi ñu nekk mak ay nit ñoo xam ne xamuñu man neewuma len dama xam ñëwuma fi ne len dama xam xamuma ni yeen di laajte sama laajte yeen ngeen tol ni man mënoo len ma tontu te bu ngeen ne duma du ngeen ma ba ma laajte quoi man ba sénégalais dal naqaru xol la quoi xamoo leen xamuma xamunu kenn xamul ñoom nu toog sax ñoom ñuy ñuy konkoolu ma ñëw teg samay laajte di laajte ngeen may saaga di kooko di topp ne kenn du ko fi laajte te yéen mënoo leen tontu nii kenn mënu to ngeen teg ko fan ngeen teg ko fan kenn du ko fi laajte kan lan nañ ko gëm te kenn du ko fi laajte man daal naa gëm-gëmm loolu nga wax na Sénégalais yi gëm-gëmm nañ gëm-gëmm mooy mooy daal gëmu gumba di gëm di làmbaatu quoi gëm di làmbaatu sa doom màgg ñëw toog naa la waa papa waa mais kii Serigne Touba nga toog yow tamit nga koy wax ay waxu puub et fier sa doom génn dem raconter cette merde un benn jour nu téye ko ne ko fen ku la ko wax mu ne la sama papa sama papa nee na may kii nuy laajte gars ne duñ ko fi laajte Inna Diawara doo am question de ok sept tonnes cinq cent u saaga leen fi am sept tonnes u saaga fenn sos wolbatiku pour faux profil loolu moom war naa si am dix tonnes faux profil yi damaa bloqué bloqué bloqué bloqué bloqué ba Facebook sax léegi moo ngi naan ma waa mais yow da ngay bloqué wala da ngay kii ma ne ko gaan fekk yooyu noonu kay mooy loolu faux profil laaj la non gars yi en fait góorgóorlu pour lu bon moom mën nañ ko góor góorgóorlu pour def lu bon góorgóorlu si lu bon mën nañ ko mais góorgóorlu pour wax dëgg wala góor góorgóorlu pour andi ab dëgg ça les ça les saale les fatigue ça les fatigue màggal gi kay moom neex naa muñ nañ ko muñaleeg fii ak suba ginnaaw suba incha allah màggal bi moom fii ak suba ginnaaw suba wala ginnaaw waaj suba gars yi commencé lem seeni bagage ñibbi si yoon bi nag yoonu ñibbi bi ngeen xoolaat encore paysage bi dégg ngeen su ngeen màggal yi ba ngeen di ñibbi Ya, si yoonu ñibbi dama bëgg ngeen nekk ba suur naan ba man yoraale sa seen benn ya toog leen si palanteer wala njëmbat bi toog leen si côté yi wala nangam ngeen xoolaat paysage bi dégg ngeen ngeen xool yoon bu ngeen jaaroon ba ngeen di ba ngeen di màggali xoolaat leen yoon boobu noonu ngeen xool paysage bi ndax dara changé na dégg ngeen ngeen xool après le màggal est ce que quelque chose aura changé ndax am na luy dañ ndax am na luy tourner wala luy kii bàyyi le petit ça va être le même port. à part seulement que vous aurez perdu du temps que vous pourrez aider vous bien transformer à aider ce pays mais vous l'aurez gaspillé à aller faire de la merde c'est quoi ce problème vous foutez de la gueule de qui quoi ah non, wow, okay. mental. Eh, Thierno Dieng nee na da ngay sonn rek borom Touba moo fi nekk waaw moo fi nekk fan fan la nekk man je veux juste comprendre man de je suis trop terre à terre xam nga man man mënuma ay ay waxu misaal ay waxu dégg-déggin quoi man dof laa comme ni ko gars yi waxee man dama terre à man wax day leer un plus un égale deux mais ay waxu sànni naan misaal la wala ay affaire u euh, dégg-déggin man sama juddu sax misaal la parce que min niw bu dugg si biir nit neuf mois transformé wu ba nekk ab doom nekk nit nu pousse ko mu nekk ab ruu génn judd dund ba toll nii misaal la quoi loolu du ay caaxaan quoi loolu yàlla rek a ko mën léegi nag wax gi moom mooy ay waxu dégg-déggin la laaj ay waxu ki je ne suis pas assez intelligent comme ça comme da ngeen ñuy jàppale sëñ bi xaw ma lan Serigne Touba moo fi nekk rek xaw ma lan kii nang borom Touba moo fi nekk yàpp waaw mais fan la nekk ñun loolu leen bëgg a comprendre su ngeen ko comprendre nu comprendre doo ko rek ça va être clair. fan la nekk parce que fa moom fu mu ne si jaww ji si biir tuubaa si suuf si si biir nit ñi si xolu nit ñi wala si alquran bi wala si yoon bi ah faut faut qu'on comprenne et on parle les point par point mais wax nii rek di sànni sëriñ Touba bu su fi nekkee kan moo ko nekkal man samay wax xam nga man jo comme. parce que mom da am lu mu liggey ba mu am lu mu doon kan moko nekkal man mom lay laajte boobu ba léegi rek su demee ba mu dégg tay nu nan no ay ram tok nan Serigne Touba fi nek mam borom Touba fi nek su da nga la mam borom Touba khadim rasoul dang ko ci doli nel khadim rasoul waw ne mo fi nek ya pas de problème so su nga ko bañee bañ jaamu bu mu jaamul yonent sallallahu alayhi wa sallam mais moom kan moo ko nekkal kan moo ko jox garaat bu mu doon kan moo tax tey ba mu nekk fi ba ngeen toog seen naan bo donc kooku noon nekkal ko fi kooku noon tax ba moom mu nekk kooku noonu jox ko grade ba ne comme kooku moom daal zéro quoi moom tamit nekkul si kenn quoi amul ku mu nekkal wala amul ñu ko fa nekkal quoi hmm? ah comme Serigne Touba moo nekk si xol yu baax yi Mouhamed moom nekk si xol yu yan yi Eh, eh eh eh léegi yéen na ngeen di xàmmee xol bu baax ak xol bu bon pourtant yéen yéen kooku noonu nekk si xol yu baax yi moom xolam daf ko jël joxaat ko Muhammad moom bañ na ba nee na leen amul njaboot su ngeen demee ba gisoo toolee ma ngeen jàpp sama xasaay di donc ci léppam la jëlaat joxaat ko yonent gi te xasaay dami lan la ay poème poème lan la ay way ay tagg Hmm? Astou Boussa Ndiaye nga na lan nga na man salte naa woy comme taatu sëñ Muxtala ak ak sikinam bi Giso sen Muxtala ak sikinam bu weex bi salte la bi ñàgg dugg si taatu xale la Père Noël yoo xanaa so Cheikh Modou Kara sama sëñ bi ndeysaan sama mara bi xam nga ne kooku set gën ko set gën koo so, sax suuf yo Cheikh Modou Kara yow So xolé, so xolé so kon la ngeen xool ngeen di wër kii ah man ñëpp ma gën a set ñëpp ma gën a set sénégalais yëpp ma gën a set àdduna wërgal képp ma gën a set sof murid yi ak kilifa diine yi waaw ñoom ñoom maa leen gën a set maa leen gën a jantal maa leen gën a boo maa leen gën a mignon maa leen ëpp xam-xam waaw loolu kenn mënu si dara kenn mënu si dara seen kilifa diine yi kay moom nee naa leen man ngeen di gis chaque jour di tëb di rii du may xool sa seen yaram yi di di kat-kati waaye mais en attendant comme nu ma leen ko waxee rek lan fan la sëñ bi ne xool yooyu noonu ngeen di wax xool yu set yu baax yi nan ngeen koy xàmmeewee seen balance fan la ne ah man duma comprendre Duma comprendre wan fan la wax ki ne hmm? man de comme nu ko waxee rek man mom c'est des questions simples que rek laay poser te ben du si réponse nak. parce que nena la gars yi xala dunu dunu dunu dunu dunu am réponse quoi gars yi dañoo am lu di gars yi daa am luy dugg seen kii quoi waaw daa am luy dugg seen kii a ah, Moussa euh, Momo Sène nee na Moussa Camara yow dama yërëm booy non yow kay yërëmooma Momo Sène billaahi yërëmoom soo ma yërëmoon seen adiya yi ngeen di dajale di ko jox sëñ man ngeen koy jox noonu nga xamee ni que yërëm ngeen ma billaahi su ngeen ma yërëmoon seen addiya yi ngeen di dajale di ko jox sëñ bi ngeen dajaleel ma ko ma xam seen yërmande fu mu toll su ma amee sëñ bi ngeen yërëm di sëñ bi ngeen di fayal facture yore dundam yore léppam kenn man yërëmul sëñ bi yërmande bi si sëñ bi la dem di yéen kay yërëmoo leen keneen seen i dëkkandoo sa yërëmoo leen parce que da leen di romb dem jox xaalis bi sëñ bi addiya te seen i dëkkandoo jege leen soxla man nga yërëm jox ma say addiya billaahi Chère pourquoi cet acharnement on vous le demande Cher Fall pourquoi cet acharnement très bonne question pourquoi gëm Serigne Touba par force pourquoi Doré pourquoi Saga pourquoi l'acharnement de ne pas répondre et de ne pas avoir des questions et insulter les gens pourquoi cet acharnement à vouloir coûte prendre Serigne Touba le mettre à la place du prophète pourquoi cet acharnement de chercher court, à vilipender la religion musulmane Et maintenant là, vous allez comprendre mon acharnement d'être debout, pied ferme contre vous et prêt à niquer votre race. Si vous comprenez l'orec, vous allez comprendre pourquoi je suis prêt à niquer votre race. C'est simple. Arrêtez de tourner autour depuis longtemps bu ngeen nek fi naan yeen yéen a yóbbu kaaba gi xaw lan su du loon yéen yónnente gi kii nangam sen waxu mbaam yoy sen waxu kon yi seen dof-dof li jël yet dóore saga kii ni nangam laajte ngeen di saga kii ni nangam su ngeen demee ba expliquer sen bop lool di ngeen comprendre pourquoi y a maintenant des gens qui sont debout et qui se révoltent vous allez comprendre parce qu'on en a marre cher sen hier mom, j'ai xorom ba mu mais tey je n'ai pas encore insulté de te s'il te plaît mom. ne fais pas tes genre de choses balaa que je commence avec toi quoi parce que moi, lii laa gën a bañ nit su day toog déglu avec la tête claire et un esprit ouvert quoi mais nous, di jéem a jaay ruube wala di jaay satan satan lu man xaw ma ay demi mesure un plus un égale deux je te xorom comme ça tu as de quoi dire et on le fait comme ça on avance quoi faut arrêter ces genre de choses double tranchant là quoi ba léegi sant saagaguma tey démb saaga naa tey nag ba léegi saagaguma dugg rek di wax say waxu ay fay euh, ah may booya ngi kii moom kii moom seen benn seen benn naataangoo fans la kii moom du rate kii Babacar Babacar Diagne moom moom fans la moom tamit day xaar réponse si pet mais xam nga ñemewul ñemewu ko wane ko lu gars yi di xaar lay xaar mo ngi xaar tamit di dégg ndax fa lañ ko nara a dégg jéeg nu ngi koy dégg jéeg mais wolul bopam am nga daam suñuy dox dañuy ciap may tek ben tank ben tank neena ñu la wala tontu amunu jotu nek si facebook bi di wax lu amul bop amul génn di wax waxi sareet watal sa watal sa rasta te dem jangi sa di sa dina molay jaring. Mana njariñ waw waxu daanu saret mënu ta weesu su la nee kaay leen nu waxtaan si alquran murit loolu waxu daanu saret la si moom kaay leen nu waxtaan si alquran lan la nu diine gi wax si lu am si juróom kii 33 femmes ñett yu bokk ndey baay waxu saret lay doon mais kilifa diine yi dinañ am temps wu comme nu ma koy génnee vidéo yi rek nu ma leen di partager toog si Facebook bi wala toog si taatu bâche nu leen di filmer nu naan bis boo deewee soo demee si pax bi. kenn du la naan euh, nan la ko wama na la ko waxati sax waaye am na nu ko si ñu daal kenn du la laaj daal xaw ma lan wamaa xaw ma nan rëcc na ma mais du naan la ana ana ana ndax ndax xam nga Ahmadou ndax xam nga Ahmadou yooyu mën na jàll si Facebook bi y' pas de problème nit yuy toog tamit di naan ñoom gis nañ Serigne Touba non am na si benn dinaa leen ko génnee ku gént ku toog ne moom gént na gis Serigne Touba mu ñëw xaw ma lan moo ko yónnante gi xaw ma lan toog expliqué mais xolal yónnante gi dafa pousse Serigne Touba toog man ne nag boobu nag moo nekkoon laas boobu moom dama koy téy ba après màggal bi nee naa leen boobu màgg après la màggal la on va bien s'amuser on va bien s'amuser on va voir si les choses changent un point ou pas comme daa am yoo xam na ni ko ñoom. jommalewuñu ko jàllale ci internet bi ak Facebook bi seen fen xam nga wala monsieur wama rabbu ko mais wala soxna jaara merci merci loolu de la saa waay wax nee na non bis boo deewee soo duggee si sa bàmmeel xaw ma lan malaaka yi sax duñ fa ñëw di naan la xaw ma wama rabbu ka moom boobu la may wama rabbu ka xaw ma ki nangam expliqué ma waa marabuka expliqué affaire du naa la ndax xam nga Ahmadou yooyu mën na gën si Facebook amul amul problème mais tontu Moussa Camara moom lan la yàlla wax si 33 femmes ñett yu bokk ndey bay noo loolu moom duñ ko loolu moom duñ ko wax waaw. Euh, Moussa Mouride nee na éloigne-toi de la drogue billahi billahi eh dengende, Musa Moussa vous de la drogue il a vraiment raison il a raison de faites attention tout dernièrement même pas quatre jours en arrière faut regarder les news Maintenant je m'informe beaucoup de chaîne news yi je suis dedans mbake mbake bounou nu Sénégal mu Magal oblige Magal oblige la leen ko jàppee kii ah, ah en tout cas man malen leen mais yé ñu l'en wala yobu xañu nu leen jàmm de yéen yéen a leen xañ jàmm mais man daal xaw ma daal la demee <laughs> i sama day dégg nga waa wax de keroog lañ jàpp seen sëriñ seen sëriñ yi si toj le rek nee naan FBI sa su wàccee Sénégal wala ay say CIA wala nangam suñu wàccee Sénégal seen sëriñ yooyoo tax nu wàccu fa que des voitures volées seen oto yu bakk ne yëpp ay eh, seen taalibe yu nekk si diaspora bi ñoo koy dóor sàcc ko dugal ko si kii jox leen ko addiya gars yi war mais comme que xam nga taalibe yi jàngunu ay sàcc leen ay con leen dañuy ñëw ba kaaw bi sax di sàcc xamul ni ko oto nouveau modèle day am ay GPS day am ay tracker day am ay affaire yoo xam ne ni du lay topp gars yi dañuy ñëw rek kon dugg si mafia bi kii ni nangam sàcc fi ay oto dugal si conteneur wàccee ñëw gay gay waaw sëñ bi jërëjëf yaa ma ñaanal ba ma dem kaaw am teel dawala nekkete yow oto sàcc lañ ko jox sëñ bi tamit moom di indi jamais rien non wala ki maanaam moom may bañul dara sëñ bi loo ko jox mu dugal si poosam moom kiy nangam ah moo ta gars yi duñ fa gëj di fa wàcc rek waaw waaw saa yu fa gars yi wàccee saa yu nu gars yi yebee suñu buntu aéroport sunu waat wàccee xam nañ fan lay jubal moo tax sénégalais dem nañ ba léegi tàmm ko miin nañ ko mis nañ ko fu nu dégg ni ko xonk noppi wàcc nañ ak seen kii yi rek xam nañ fu nu tàllali léegi nak ñun fay def nag suñu génnee Sénégal nak wala nguuru Sénégal mus bo bëgg de ñëw protéger lén té affaire bi du juk viral yoy non tamit la Sénégal nguuru Sénégal am contre ñom mo tax xoolal duñ lén di jappalé nan wax néna la kuñ wax ki song Macky Sall xam nga ni Macky Sall nguuram non lay ci cëppeel le mën Macky Sall gis nga ba mu toké bob ba légui képp ku and ak mom soko démé sa ba diko ko bu mu génnee secret même sen biir ñu andone sen biir su suñu demee bay bëgg a démissionner changé mu cëppeel wala mu génnee ay affaire say affaire yu yàgg di la jéem a kii ay Cicelo ay ay Farba Ngom ay affaire yu noonu yooyu looloo seen mission ñoom seen biir dañuy lekkante yaa ngi comprendre noonu leen def sëñ bi xam nañ ay bagage na fa nekk di konkon léegi nga dégg ay scandale yu bëri léegi nga dégg yaay naa leen nekkate yow ba fi FBI ñëwee lii leen dàq ji woon fee lii leen jàpp ji woon fee kii lu bëri am da ngay toog rek dégg ni ko waa CIA parce que rek yegg si neen su suñuy dem du la ne dem neen ak luñ fi découvrir ak luñ fi wut si woon ñun ñoo fi des nag di xool naan waa mais ana suñu gars yi ah ñoo ni dem neen mais ah man foo ni gars yi dinañ fay ay million wala kii nekk ñëw ba Sénégal pour taxawaalu ils ont passé temps lu am ful mooy tax gars yi jug ñëw ba foofu non ñëw ba foofu laa lay tegal Astou Bousso nee na pourquoi tu ne me prends pas parce que je ne trouve pas intéressant C'est pas forcé de te prendre, je prends qui je veux. C'est quoi le problème Tu crois que je ne vois pas Mangi ces commentaires Si tu me racontes de la merde, ouais, tu n'es pas intéressant. Je ne suis pas obligé de te répondre. Je parle avec des personnes que je pense que cela même, ils méritent, il mérite un minimum de réponse. Voilà, amna lu quoi. Mais soo gisee affaire tok ni di raconter sa mère man je suis pas là pour ben ñaarante ay yaay boy wala ay jigen la la ki nangam non je dis ce que j'ai à dire nous jang ko non mënuñu ko jang en marche faut arrêter de faire tes intéressants quoi arrêtez-moi ça quoi nee naa leen su live ni damay damay tak de waaw lol mom foog ngeen xam ko su ki mom lamay tak tàkk samay tak tang metti tang jër duma ma affaire yi mu sedd je suis dans ma défensif. Voilà. ma ou de ma il est lépp c'est laajte quoi parce que bu sonnee a tout faire le malin je n'ai pas le temps de faire le malin c'est que je n'ai pas le temps des petits benn benn ñaar Ça m'a Facebook lu fa kale say affaire ça moi loolu je n'ai pas ce temps gars yi du lay kii ba ay saaga leen fii andi ay wax yu bëri wax ku sew wax ku kii man je ne suis pas là pour les amitiés wala pour vues yi wala pour di ay keeki nangam je suis là pour faire un combat qui me tient à cœur voilà lu may wax fii laa koy waxee moo tax gars yi di wax man je ne suis pas là pour am dugal ku kenn wax ak kii nang ku am lu ñu wax na ko wax Facebook am ku am lu kii nangam gars yi fii dañoo bizarre Facebook nag moom c'est pas une place boo xam ne mooy loolu point barre. Je ne suis pas là pour me créer des amis virtuels Facebook ou affaire non je suis dans ma Sénégal j'ai appris mes leçons Il y a des qui mu Je suis man Je suis ñaanal na defal na Je suis gi suis mais tempo tempo rek waaw tout va se faire comme il se fait je suis quelqu'un doucement ya yàqamtuwuma sama dara ya yàqamtuwuma sama dara fërë feuy feuy feuy feuy fëy ba ne pemb si tàmb nag ah après nag quelque jour nag rek ngi lan bëgg ay jigéen wala bëgg taat wala foog ne ni ka ay affaire kii nangam non non non non je suis pas dans ça kii nee na ma tu veux des réponses waaw je veux des réponses nak mais ci kaw je ne veux pas des réponses privées les réponses privées ne m'intéressent pas voilà je veux pas des réponses privées je veux des réponses que qui veut me répondre ah, ah, ah, voilà. Attends, je vais finir même encore une fois pour tout pour cela. Ces réponses, il n'y a pas que moi qui les veux. C'est toute la Oum islamique qui les veut. Nous, les musulmans, nous voulons apprendre, nous voulons comprendre. Lolo si tu vois, il n'y a pas que moi, je ne parle pas seul. Donc, tous qui sont là aussi, ils sont là tous les jours, ils veulent des réponses. Voilà. Quand tu donnes une réponse, que tu sais que c'est une réponse qui peut être euh, pédagogique, ou bien une réponse qui peut beaucoup servir, tu n'as pas besoin de m'appeler en bas pour me le dire. Parce que moi, quand je me posais mes questions, je ne t'ai pas, appelé en bas pour te le dire. Fais ta vidéo, dis tes réponses. Nena le dire. live ne Elaj Moussa Camarade tes réponses nanana. live Je sur Facebook. sur Facebook. Nous n'avons Parce que pourquoi? Pour que nous ñep nous am preuve suñuy traçabilité ku est mën a enregistrer denc sa carte mémoire et l'histoire retient comme ça chacun pour sa quoi mais man mon Facebook wala man samay affaire ay affaire yu amul traçabilité yu amul top, pour nit ñi mbaj mbaji ëllëg bi non je prends maintenant mes devant nit dugg na fi sama live saaga tey nu toog nu ne dama kaa compter dama kaa monteel te yàlla xam ne ni moo dugg wax ay waxu boppam les gars, chacun prend ses responsabilités qui va répondre à Moussa Camara ouvrir une page Facebook c'est gratuit tu te montres nous portes tes couilles et tu dis ce que tu as à dire et on va le partager nous ko wala ceux qui adhèrent adhèrent et nous le wala tontu tontu et puis hein c'est simple mais pourquoi c'est obligé que on parle au téléphone moi et toi pour que non non parce que je sais là où ça va end je sais là où ça va end yo ne suis pas là pour ça chacun mon ne suis pas là pour ça quoi ah damaa toog di duul mais yow tamit dama toog di wax dëgg pourquoi pourquoi murit mën tooñ moo tax ma nee naa leen ma duma leen wàcc su ngeen yaakaaree ma wàcc leen ngeen fen damay toog di duul yow nga am fu la mën toog di wax dëgg nga xam fu mën a toogee di wax dëgg lu tax doo fa toog di wax dëgg mais foog nga ñëw fekk si ma man fu may toog di duul pour jéem a am lu ngay wax jéem a wane sa bopp comme kay ku tooñ léegi man léegi si lii ngay def su ma saagee sa kilifa diini wala ma saaga sa ndey nga mer. nga gis gitu, ci sa bop wala su ma sa kilifa diine nga gis gitu, sa bop te pourtant amana so tey won sa tati nga dem teg ko fa nga wax ba say waxu deug do ma dégg may di dugg ci sa serigne mais c'est comme ça les mourid comme numa ma ko waxee da ngeen fo na ni que yeen yéen a moom nit ñi neena da ngeen di fan tant que Père Noël ñewul ba expliquer nu ñun lutax mom du jité ñun du nu mëna comprendre aussi voilà c'est ça le truc tant que Père Noël ñewul expliquer nu lutax mom du jité On ne va pas comprendre. ah yéen kay Baay Faal yéen sonn ngeen de nee naa leen tontu leen ma ah sama gars yi nee naa leen saaga aki di mën wax ak bëgg si pet bi say moroomu baay wo nen ma si pet bi lu may wax dégg naa ko lu ma leen wax dégg nañ ko point barre di kekkanteeg ay tierce personne di wootanteeg di acceptanteeg ay pay di benn benn la ki je ne suis pas là pour ça samay question si kaw laa ko ku am ku ma répondre na ko wax si kaw chacun s'y trouve point barre lu leen naqari teguma leen ko seen i fenu bopp la seen i fenu bopp la yeah c'est votre c'est votre fene man lu leen Père daal man dama wax lu tax am waaw mooy loolu bamba maraama mi di kii bi jéem a am lu muy tag di expliqué ah di ay yooya yaa ngi toog foofu noonu di na ko na moytu sëñ ateex nag na moytu saa waay sëñ ateex baas na de sëñ ata Mbàkke baas na nag moo ngi xaar róolum moo ngi xaar moo ngi xaar doon na moytu de gaa yi léegi pour doon du ñuy posonante de ñuy posonante pour doonante waaw moom moom baas na ba pare nag moom di annoncé te de laal jabaru jàmbur yi na moytu de hmm. na moytu yan sen problème sen puubu kaña yoy non ngeen ko gérer ba paré mo gën ngeen génn fi bëgg semer lo bordel yeen nga fess del ki puub ci bir hein eh? kenn kenn kenn kenn waxu ci ngeen wal ko gérer ngeen nek fi eh? la hein vouloir sauter faire la bouche et la grande yeen ku ngeen yëpp arrêtez nous sen mana bi ngeen di jaay amo len tous amo len tous yeen sen serigne ngi jabar fof ci kaw ñe di jaay drogue eh ñe nu len di jappay gor jigen ah eh? domaram yéen damoo leen lijjanti ji wax yooyu noonu dem lijjanti seen problème yi fële ngeen nekk fii vous voulez vous voulez crier sur les gens bëgg jiite islam ban islam islamu sen seen seen seen islamu sàcc boobu seen yëfu seen yëfu doomaraam yooyu yéen yéen yéen vous foutez de la gueule de quoi bëgg kii xëy ya yow bayu yee yee yee nee naa laa c'est là fii ngeen may bàyyi samay réponse ma fi mën a jëlee ngeen tontu ma mën a mes waaw toroxal bi moom si tontu lay mën a doon bis bu ngeen ma fàttee sama gëm ma ne fes sama gàcce mais tant que mënoo leen maa toroxal ak samay tontu moom fii laay toog di leen ko joor eh, eh, eh, di leen di di di di leen di leen leen dinaa leen wu kanam bee ñaaw nag kanam bee ñaaw moo tax du ngeen ko respecté mais y a pas de problème nee naa leen bàyyi waal booy bu ma si saaga ba pare sanday ñaanal na ma man amul benn problème képp ku ma si saaga sanday ñaanal ma man ba ma tooge ba nit saaga ba pare yaayam woo ma ñaanal ma laa ne man pare naa moo tax booy léegi di ngeen may saaga moo tax ma conseillé ni di leen ree parce que léegi j'ai même peur de vous insulter parce a saaga ku may ñaanal moo tax souvent ma leen di ragal a saaga moo ta ngeen di wax ni may kaañoo je préfère saaga seen kilifa diine parce que xam naa ni ko dooma xaraam yooy ñoom ñoom duñu bokk si ñu bëgg a dimbali suñu ndey man yiyom sonon parce que booy di saaga yëpp di wax ni dañoo réer seen ndey yeeg leen di wër boobu ba léegi mënuñu leen gis seen yaay yeeg leen di wër boobu ba léegi mënuñu leen am man soo ma saagee sa yaay ñaanal na ma parce que je ni que man mang koy dellu sul domom de ga wax tok leen sen peggu ndey à la maison et eh. avez les réponses ora ora bru ra bru bru bara bay no stress no stress non noo fen xam nga duñu intimider nak tek nu nak ci fitna non Macky Sall ñoo tok ni non non non fen la moom la ñaari yoon ba paré tek la si stress nu wala dé stress on va mourir hein avec la joie de vivre de billah les petits cons là ah voilà dégg nga eh, nee naa leen gis jigéen ñu mën a saaga foo leen gis seen dara paa yi nii day forox déglul ma lii nee na day saaga nga jigéen bu mën a saaga gis nga nu gémmiñ gi di ñaari noonu la dara paa bi di forox yi jigéen bu saaga mënul mënul set foo ko gis ay perte blanche yu jaune lay am gis nga yu jaune yu tilim yooyu noonu foo leen gis sa fu nu dugg gars yi fatt seen bakkan wala xool mooy genre jigéen yooyu nga xam ni que tam nga iri leen ba ñëw toog ni sa xol nga tàng jër ba sa maalaw taxaw desul du dul dana xolo jëfanteeg moom laa lay tegal nii nga daal di tourne su futteekoo rek maalo bi nii lay def yow ba pap da ngay mer ba da ngay naan ko sol sol sol sol sol sol sol sol sol non maa si daj yenn non Sénégal nee naa si gën a kébetu yi di jaay neex ki nangam daj naa si de billahi wala waaw booy li ngay dugg booy xoolal tàng booy dàq sa copain yi booy daaw ñëw ay yàqamti booy doo see quelque échauffement bërëngu si kuréel kontaan tëb xoolal doo dool mooy tëb victoire bi daw baay sangu taf-taf génn booy xoolal wat sax affaire yi booy pour mu xaw a set booy romb ak ñëw jaay la boo commencé tàngalantu tàngalantu tàngalantu tàngalantu mais gis nga laa la wax soo beem leen nii néeg bi yooyeeg mbuuteeg wàññi tumeur yow sax da ngay paay baab bi tout c'est fii xoolal benn ngoog astu buso jigéenu saagakat noonu lay mel nu nu suufam bi xasawee noonu la gémmiñ gi di xasawee lu wax lu xasaw rek lay mën lu xasaw rek lu bon rek parce que elles sont mauvais elles sont mauvais je te jure mënunoo baax jigéen bu am classe soo ko gisee day am ñu muy jomm jigéen bu am classe soo ko gis day sensuel day mën a wax lu neex day mën a oyof xoolal saaga kii sax soo ko waxee day day téye gémmiñ kii day kii di nga xam ne que ah mooy yooyu mooy jigéen mais jigéen jigéen seen gémmiñ ñu rëy kii ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma dégg nga maa ngi naan damay tisa ba naan jàmm onze billahi seytaane seytaani rajim bismillahi jàmm souvent damay ànd ak ay tiitaange yoo xam ne sax bul comprendre laa ku la gën a xasaw gémmiñ moo la gën a xasaw suuf damal si yaay booy damal maa la ko wax nandi xam ne lu may wax gars yi nandi tey waxal nag vous lay nante vous savez bien de quoi je parle billahi wallahi mu ngeen lu may wax de demal si gynécologue moo gën ma ñoom la wala yóbbu si géni gynécologue nu lijjanti leen moo gën nekk fii di mbàcc mbàcc rek nga nekk fii nii di kii yaa maa ngi jégalu de <laughs> rasul bintu rasul maa ngi jégalu mais il y quoi on a marre de ces petites garces là quoi gamins ne set wala gamine yoo ne sango set après période set bëgg fay Ils di les gens di nu jaay ay affaire di de di tourner di hein, ces petites puanteurs de la base espèce là si wax ni am lu quoi mais come on hein, ils ont qu'à la fermer quoi yéen vous nous emmerdez à un à un point que lu leen bëgg a wax xeeb ko lu leen bëgg wax xeeb ko quoi ah petit bâtard que vous êtes comme ça là cancrelin dëgg ay vrai cancrelin ça c'est quoi c'est ça hein nekk fii di saaga newoon sa góor ñi sax kii nangam ne mais ay jigéen laa la ñuy ñëw fii parce que rek nee na le man nekkuma fii de kii di nangam mais nag je connais ma défendre aussi de ça que je vous dis que ça soit clair ay ben ben nak ay affaire u jigéen moom du samay affaire quoi man j'ai d'autres problèmes j'ai d'autres problèmes pas ça soit clair yeah parce que jigen mom bu dam bay saga te suñuy saga nday ngay saga te ngay futur nday wala ngay nday respecté wo so bop suñu lay wax ak yow tamit kenn dou la respecté faut que ça soit comme ça quoi pour que tu comprennes les choses parce que ñun suñu ndey danoo sonn juróom-ñeenti weeru ëmba du ay fo jël ko jur sa doom te nampal ko tette ko ba mu màgg mu taxaw léegi lu gën a ñaaw góor bi saaga sax ok parce que ñun suñu saaga ndey ndey ndey mais jigéen buy taxaw elle naa même neel sax baay neel sax bàyyi sax au moins nu sekk yaa am pëdër mais ndey ndey jigéen yow nga toog ndey yow ngay ndey ngay futur ndey yow xanaa xamagoo si puus doomaram xamagoo lu si puus quoi moo tu te permets nga ñeu dugg fi ni gis ay doomu jaambur ay ndayu jaambur baayu jaambur tok fi et tu vas insulter tout le monde tu te crois que yaa fi gën a c'est parce que xamoo lu si metti tu pousse comme yo do ndey comme nag dañuy xorom sa ndey tamit lu da kay jaarale non rek comme ça c'est ça le truc faut que les gens commencent à utiliser su souvent man may am lu may metti ci gars parce que nek nekk nee la moo may jaar soof diko fatali tamit yenn wax yi daa am ay wax yo xam ni que nit da ngay use sa mind si tu veux être quelqu'un yo yaa ngi saaga ndey te ngay ndey ëllëg son day sa doom nu yow sa comme c'est quoi Hein? what the fuck ah cher, cher Oumingay, Ndiaye c'est facile de se cacher derrière son écran et de faire le malin il faut venir au Sénégal si tu as des couilles c'est dommage c'est Sénégal nous ñu fa c'est plus beaucoup non come on rester au Sénégal si tu as des couilles c'est faux Sénégal ceux qui ont les couilles n'en restent plus beaucoup de n'y a que des il n'y a que des femmes. a ay gars qui ont des ak et des billahi voilà C'est fa xam nga nga a ko yow les couilles. Il a parce que day défendre personnalité mag taxaw soo ko nee wax ko léegi mu xeex xam ne leen léegi nag ñëw Sénégal pour def falan góor yàlla yi desatuñu ko Sénégal góor yàlla yëpp génn nañ daw nen fàq nañ mënunoo toog dund ak li toog di fen toog di kii gars yi jël nañ yoon ba dox nañ de góor la bëreetul Sénégal ay benn benn leen fay compter ñëpp jël nañ tàppete tax ngeen jël seen àdduna ak alaaxira jox ko ay dooma xaraam yu tëdd di saw muy dox loolu jom la loolu et tu n'as tu as peur jaamu yàlla yow yow tu as peur de faire face karim jaamu yàlla te yàlla yombalal nu ko yow tu as peur de de lijjanti sew sa àjjana yow nga dem jël sa lépp jox ko ab nit et tu me parles de couille yow yan couille nga may wax yan couille il ma parle de quelle couille des couilles de mouton wala xuuru nag yu ngeen di lekk xuuru xare xuuru nag yi ngeen di waaj a lekk ji euh, 18 safar ah quand on de venir quel couille ils ont ni ont ils ont les couilles de ils ont les couilles Nous, ba passeport diplomatique pour mën di dans la diaspora donc nous xanaa seen les couilles koy diaspora. je sais pas lui quoi danoo les marche yuuxu ont pour nous que passeport diplomatique nous visa Schengen nous ak président le tubaab yu news les ñoo ont di ñoom ñoo bokk docteur ñoo bokk docteur mais léegi man pourquoi léegi man le fait que ma nekk fii ça c'est une histoire de ne pas avoir de cuité pourtant am ngeen seni i sëriñ nekk fii si diaspora am nga ay sëriñ yu immigré am na ay sëriñ murit yu immigré yu nekk ak ñun fii di Moodu Moodu am na si de am na seriñu sëriñ yu immigré yu dem toog basé au sa dans la diaspora ñoom seen i kuy seen i kuy fu ñu ko teg wala ñoom xaru Mali bi leen yor. comme ça waay vidéo boobu ma gis naa ni gars yi di ko partager temps yi en tout cas ah comprends plus de man daal leen balaa ngeen di am lu ngeen di wax daal ngeen di jënti ko seen bopp ko di jënti leen seen bopp de billaahi baay Sénégal góor yàlla yi dëgg-dëgg laa lay wax ba ñuy abale senegal sax est-ce que ñii yor nañ ay deux cent mille wala trois cent mille yu mat billaahi saak leen so saak leen oddoo de dem xool seen ndey seen sëñ bi sax ñaanalu leen sëñ bi su yëgoon ñu bëri dinañ dem da leen di dissuader sëñ bi taalibe bu ñëw ne ko maa ngi jëli gaal wala maa ngi jël yoonu libi bi du la bàyyi nga dem adiyo bàyyi dem te na yoon li bi wóoru day day si yoon li bi de déggol si waxtaan si télé bi toog fi muñe di nga sa ndey sëriñ Tuuba di nga la jàppale wërsët kenn du ko dàq ji waaw góor yàlla dëgg dëgg dëgg day tolof tolof yàlla ku mu la koy teg eh, waaw ay moom day sa nafsu bi moom nga ngay ay découragé de sëñ bi non su xamee yaa ngi dem su duma nga nekkoon un bon donneur un bon donneur comme ça ay ay doo dem non non non non foo jëm saa waay pourquoi tu veux sa yaay moo lay ñaanal sa yaay sax souvent sax moom su xamee situation wala condition yoo nar a demee moom tamit te mu am nu mu kii mais su demee ba xam ni que nag jël nga sa décision lu mënut a ñàkk foog nga dem te du la mën a da lay ñaanal billahi da lay ñaanal bàyyi faal gars yi man xam naa si laa ñoo xam ne saak leen boot woon ginnaaw Sénégal tey jii nii so leen déggee fu nu nekk de da nga naan non so leen déggee fu nu nekk da nga naan non billaahi da nga naan non eh Cheikh oumi Cheikh xaw ma Cheikh Oumy Ndiaye xaara Cheikh Oumy Ndiaye c'est drôle quoi man man man te ngeen naan ndox be nee na ma j'ai remarqué que tu insistes beaucoup sur les homosexuels on dirait que tu en fais partie. Tu, euh, tu en fais partie. Vu ta méthode de revendication, se cacher derrière son écran. ma ne encore Qui est moom ba muy bind que turam bu mu def ba pare man maa wax samay tu veux me dire que góor jigéen laa amul problème porte couille nee ni que góor jigéen nga moo gën ngay tourner pourquoi vous aimez faire les petits trucs de débat de tourner xam nga naxtaan kii fait quoi que vous êtes non dama góor jigéen nga comme ça je te réponds clairement ma ne la yow ba ngay ñëw di bind nga def cheikh hein cheikh dama nga wut signification cheikh balaa ma waxati encore nga may saaga te doo comprendre la de cheikh di signifier cheikh bi cheikh bi cheikh cheikh cheikh après nga ñëw tegal ma deuxième no muy lan ummi ummi hein ummi après nga ñëw ne ma njaay après yow ngay wor gor jigéen da nga da nga mandi si cafet wàññil ndjar bi wàññil ndjar bi man li tout musuma ko cheikh après nga def ummi ummi kalsum wala ummi hayri wala ummi nan après nga defal nu ndjay après tu cherches des gor jigéen Sénégal je vous aime magnifiquement magnifiquement magnifique. Ça, c'est mon beau pays. Eh, le changement, bàyyil Astou Ndiaye sama maam xanaa xamoo Astou Ndiaye la tudd sama maam Astou Ndiaye la tudd de. wallaahi sama bàyyi leen sama bàyyi leen ay eh, bàyyi kii de oh, sama chéri boy la sama aaw buuru këram sama chéri boy sama gaañ sama maam sama xarit sama jaay parek. wallaahi kaya asunja la menja ya billahi menja gonja menja gonja ya sawai degal degal kalsu jan kalsu jan dena ñoo ngi si kaaw bi comme yow waxoo fi dara yow fan nga nekk si kaaw yow ndaa yow yow sa maam nga naam ma ñoo ngi si kaaw bi comme yow waxoo fi dara yow pour yow yow da ngaa foog ne kaaw bi amul ay mbaam pour yow da ngaa ne kaaw bi amul ay mbaam va faire fuutur dama fii mbaam kese fi ne sunu maam ak sunu yenn nijaay yu fi yàgg nu foogoon dee neen ba nu dëjël leen ba ñenn kii ñun sax ba nu ñëwee du leen fay fekk danoo téye sunu géej mi ne comme yéen a ngi fi ba léegi ñun dëjël nañ leen fële gëj nañ leen dégg foogoon nen ni que da ngaan dee gars yi léegi danoo jaay seen xeet toog ay mbaam. am ñoo xam ne ban fi yegsee ba léegi mënunoo am billet dellu parce que lu tax seen yooyu ngeen fi nekkee len fi nekkee demal Touba ñaata Baay Faal len fi ñaanal boobu ba léegi lool leen fi nekkee de amuñu liggéey utuñu liggéey defuñu dara ñoo ngi fii kaw loolu rek len am mooy la le malheur d'avoir le visa yeewu sol seen i njaxas yor seen benn kii toog si arlem bi di fëgg di taxawaalu di kii ñaanaatu kii dund maa jaal bi leen fi bëgg a dund doo doo doo gaaw a jënd billet de hmm, hmm. doo gaaw a jënd billet billet wu Sénégal bi moom doo ko def La ilaha illallah. bari ngan fi de lolou kay mom de golu mo la wax ya ya ya ya ya xamna naa bu bax billahi xam naa bu bax ay bari nan fi de eh, era wa abo teranga aduna teranga aduna man rek ko am nak billahi man rek am teranga aduna billahi amna naa buma def julit tudema El jox ma musa santal ma Camara Mandinko Mori kamara Yille am naa teraanga àdduna loolu rek teraanga àdduna ba pare wol wëlbatiku ne xolal xamal ma ku ma doon ma xam fu ma doon xam fu ma jóge loolay teraanga àdduna léegi gis nga lu si des nii eh loolu du teraanga àdduna de loolu noonu teraanga iblis la loolu noonu liggéey bu ñàkku la lii lii liggéey bu ñàkk wala teraanga iblis ñaar yooyu nag lay bëgg doon comme daal nu ma la ko waxee boobu ba léegi mooy cinq mois maa ngi jàkkoonte ak yéen si question yi te chaque jour nag laay live man maa ko mën maa bëri wax maa bëri wax temps en temps ay tëbal may gars yi nu nelaw mais man chaque jour nga xam ni que saa waaye bëri paas am jot ñëw taxaw waaw loolu de moom tamit teraanga àdduna la macha allah tabaarukàlla waaw waaw nee naa la kay tey jii nii mënoo si dara loolu du sëñ bi de sëñ bi mënu si dara parce que sëñ bi maanaam ni question yi ma koy laaj mënu koo tontu donc mënu si dara lii yàlla la yàlla la chaque jour mu xoolal mais ànd ak tawféex wér gu yaram. am paas bu doy ñëw jàkkaarloog laa laajte samay question doy na alhamdulilah yé nee na ma taril faatiya su ma taree faatiya da ngay kontaan da ngay defaru loolu moom moo laa bañ instant gi nii kay nee naa leen man kay lu ma la wax dafa leer su ngeen ma tontee ma may leen baqari ba naasi tontu leen ma rek baqara ba naasi laay jëm ak yéen mais instant ma posé len sama question ngeen ñëw fi wax sen waxu poup di xol ku ngeen di tontonté kuy ñëw wala ku ngeen di tek daara day neex ba mu ëpp day neex ba mu ëpp ça va être trop doux pour yéen seen sen 18 safar sax day jall dama ko dama ko nara sifay sax defar ko mu ko neen xaar ba après rek yeen sama fatia su ngeen ko déggé si sen nopp sen nopp dama ragal de da ngeen di jaar fofu defaru ba faaw loolu moy caabi aljana bi nak sama fatia bi su nga déggé sama fatia wóorul la ilaha illallah yi nee la de bay fan xam nga xam nga mënoo mënoo dem si caga fay caga bi ba pare laajte ko say wala wal koo laal ba pare ba wëlbatiku caga bi wala laal xam nga loolu amul moo fi mënut a nekk déggul mu da ngeen may tontu rek ma demal leen Bakary Banaas su ngeen waane waane loo ngeen fexe fii nii ba ngeen dugg fii nii changé wax bi wala ngeen changé ma si leneen wala ngeen détourné ma si leneen ma xam ni que boog man maa wala bàyyi sax live dem toog noppale ko déggoo leen ma des juróomi weer yéen a ngi essayé doxul déggoo leen ma de su ngeen fexee man ba ngeen tourné ma

man luma len leen wax daal leen faatiya ngeen ma laaj man ma laaj léegi Père Noël l'ikhlas man fatia ya. léegi Père Noël na tari l'ikhlas ma tari ya. fuck that loolu ma leen wax de yeah, yeah, yeah, yeah. À. Ừ. Adama sindo view ko yo. Ah, dam sa lan mooy question yi xaw ma da ngay dem nga xoolaat vidéo yi cinq mois de question xamoo question yi ba léegi nga koy dégg ñuy wax boobu ba léegi sonn naa si répétition bi wala ngay déglu rek ba su ma ko répété waatee for ko mooy loolu waaye nekk fi à chaque instant moom fan mooy lan mooy question yi lan mooy question yi mooy loolu. ah Babacar jaañ wax nga dëgg de nee na fii ba deux mille quatre vingt dix doo gis ku la tontu waa ah, ah, ah, waxu sareet bi daa am fu mu commencé xam nga waxu sareet bi am fan la commencé mille neuf vingt sept moo tax suñ ba deux mille quatre vingt ko poussé amuñu tontu mu nekk waxu sareet nen xool ku doon dawal sareet bi rek waxu sareet am na ku ko doon dawal de kan moo doon dawal sareet bi ah mille neuf cent vingt sept lañ ko commencé war nag waxu sareet boobu di ko dawal muy daanu rek en tout cas moom la ñuy lijjanti boob ba léegi de. ah waaw mom la ñuy lijjanti boobu ba léegi rek ah waaw waaye yow Cheikh Ahmadou Bamba ndax ah tey lu ngeen di magal, lu ngeen di màggal Cheikh Ahmadou Bamba c'est parce qu'il s'était pointé au Gabon non du son retour ngeen di Magal. Manque kay Khalen? su ma lijjantee lu mon retour va aussi être un magal. pourquoi vous vous précipitez comme ça pour que je retourne tout vous faut pas vous fatiguer vous yéen 18 safar 18 safar le retour de l'exil de qui de Cheikh Ahmadou Ba moom ngeen di maye nangam di tempo tempo je suis entré dans mes je suis dans mon exil Bah elle est sama doxal bu ko mon retour aussi sera un magal. point point bar. qu'est-ce qui vous fait mal comme ça les réponses vous font mal avant de sortir mais les réponses bis bu génnee ngeen ah oui oui ah 33 femmes 33 femmes yi fan leen dëkkoon loolu laaj nañ leen ko du yéen a ko wax yéen ko bind yéen a xam fa ngeen ko dëkkaloon loolu yow mii dem ba di ko laajte nag comme yaa ngi commencé yeewu mais si yeewu kon ba léegi danga am fu tëye fu bañ mais garaawul doxalal rek su yàggee yow sa bopp di nga xulli instant yi xëpp nga benn bët nii taf beneen bi gumbootoo mais boor ñu nga boor ñu doxalal tu arrives su yàggee beneen bët bi ubbeeku yow sa bopp tu te poses des questions 33 familles, yi fan leen dëkkoon boole naa ko tamit léegi sax samay question merci beaucoup dool leen nga ma question parce que yéen sen bop yéen ko bind yéen ko wax ay doomam danoo reñe seen i dom do no nee Néna la ñu ci bëri so leen dindiwee nu wa ci seen i reñ seen i doom du nu reñ te seen i doom danoo toog do no tok cheikh déggoo dé. comme que nak yow ñew na ba fini, affaire bi lënd na ngay ci fan leen dëkkoon merci yow sa andil nga nu affaire ñom fa la donc ya nga yew lo la lay wax yow mi ni tok limal ay ñen rek ne ñi ki nangam man la yow kii doomam moy lol liste la leen génneel liste buma ma leen génneel publier dama leen ko publier ñaari version arab bo xamna ni ko ñom sen sët moko jël jukki ko bind ko en arab benen bu tuba bi jël bind ko en français mu nekk 33 femmes ñom ñoko bo def sen recensement te si ñom lu no sa te am ñun si boolewul. am na ay mbàkke mbàkke yu nekk si el bi di leen xeex parce que boolewuñu leen si du leen éliminer dès le départ ngir rek ñooñu danoo teel a muus teel a jàngi am xam-xam ñenn yi ngi Arabie Saoudite ñeneen ñi ñoo ngi foofu si biir Maroc ñeneen ña ngi si biir te ay sëtu Serigne Touba yu biir la ñoom ñoo ko bind ñoo ko wax léegi nag tur yu nu fa benn kii nii teg liiral tur gu si nekk yaayam dafa nekk doom bi ànd kek yaayam. ñoo si bañ nous si génne nu ne la il a régné de tel temps de tel temps comme nu mu fa demee comme reñam fuu la comme boog lu ngeen di wax yéen dem ngeen ba toog fii yéen a koy poser seen bopp allons y le poser question yooyu moo dugg sama bopp may laajte de nu fu mu dëkkoon man tamit jaaxal na ma parce que man nee naa c'est bizarre nee ah comme ba ba man ba may wax boobu ba nous on dirait que ça ne rentre pas nee nous c'est bizarre neen def test ADN lu nous ma naan nous ADN neen def ADN ah su yàggee ngeen yeew su yàggee ngeen yeew question yi sax dem ngeen ba léegi yéen sax yéen a ñuy andil ay question su yàggee ngeen yeew papa yéen mii ngi su yàggee ngeen yeewu laa leen wax yee yan kay fiyee gi neex fan leen dëkkoon loolu tamit seen bon pe mais am na doom yi doom yaa ngi fi doom yi reñe neen danoo toog danoo toog kilaafa waaw danoo toog de ah waaw man kay dégol ma la commencé leen lim rek liste baa ngi noonu da ngeen di jël liste bi ne ki bokk ci woon ki bokk ci woon ki bokk man yow yàgg naa leen koo wax ne leen foog vous débrouiller choisissez quatre vingt neuf bataar xale yi on se trouve donc yéen dem ngeen ba nangoo ko noonu on a qu'à trouver les cartes qui sont légales xamni que les 29 neuf hold up nan leen def ba teg seen dom fal fan leen fal fan leen clair que ça ñoo ko bind bind yaa ngi fa toog léegi nag yenn su ngeen amee yu ngeen di rëññee dem leen ngeen jëlaat liste yi ku nekk na photocopier liste bi su ngeen bëggee après ma publier waat ko ngeen daal di coché comme que xam ngeen histoire u Serigne Touba xam ngeen jaajaay xam ngeen kilaafa bi ñu toog ak ñu ko doon ñu seexam ñëpp ngeen coché ki bokkul kii ki kii ki nangam kii ki ñu xam. ah. jën déggoo leen de. xam nga yéen den man man wax gi de man man man waa léegi man waa léegi sénégalais fan lay déglu xanaa ñoom seen taat yi ngeen di dégloo wala di man dama leen ne damaa xam bu ma fi ñëw nee naa leen ma ustaas du ma wàllu du ma yàlla du ma yonente question yu ma teg yéen mii ko xam lu tax yéen mënoo leen ko teg yéen ni am si lu leen leer yéen waxoo leen bële te ñemewoo leen wax man kay fu ma leen di xaar kay bu leen xam na xam naa si lu ma leer wala kii nangam tek len yéen loon wóor ni ke li mo len leer su boba di ngeen deg wax gi wax gi clair na mais yéen suñu ngeen dugg see leral na len mais yéen yéen ngeen nelaw lol la len di wax c'est clair simplement et net yéen a ngi nelaw yéen seen bopp leeral ngeen wax gi mais yéen yéen ko bañ nangu si seen leral leeral yéen ko leral mais yéen a ngi bañ ba tay man ma la fale liste ba ngi dox liste baa ngi fépp moo ngi noonu 33 familles ñoo ngi noonu doom yi nu am si sëñ bi ñoo ngi noonu te doom yi ils ont existé danoo tokki laa fa kay xanaa lu ma wax ay chinois laay làkk wala lan ku si nekk da nga am période boo reñee si si kilaafa bi toog de tel tel à tel ba nu lim ba lim bi jeex ba naan sët jeex na léegi nanga bu ñuy xool fu ñuy jëli jiwaat doonoo am yi seen yi ndey seen yi ki ñoo ngi noonu léegi yéen mii ko xam gérer man kay lu ma wax c'est clair parce que man nee naa impossible neen def test ADN nu leeral ko parce que man fuma len di yobbu xamna naa hold up la hold up la Serigne Touba santou len ni lu ngeen di wax sen réewande bi ñu toggee Serigne Touba nee su ko fekkee won kenn si yendu du ak kenn si yendu saña taxaw ne mourid la parce que lu ngeen di def nii seen réewande bi ngeen di tege sen affaire de con bi doxul loolu gëmu ko point nan def test ADN leeral ko 33 femmes yoy ngeen wax ah ok fumu dekon ok nu mu ñoo ngi won fofu si bi daara gi ñoo won fof ci bi biir daara gi ñen ñi ay élève lañu won ñen ñi ay dénkaane la woon ñenn ngi ay jabaruñ bëkk nekk lañu won ci fiyoofu la nekkon ñom ñep ils avaient existé aux alentours mais après sa mort Mbacké xew ñu daal di jël dind bat duggal Mbacké là c'était bon maintenant pour duggal tout le monde dans le gang c'est là leen toog ak tubaab bi créer sen plan ku def sen ben affaire yéen yéenay nek la seconde constitution anticonstitutionnellement top nguur gi di leen tek ngeen nekkal fi suñuy bët gaay yi nangoo ko noonu ñu may leen ko bobu da fekk Serigne Touba jóge fi Serigne Touba da fexe ba mu fi jóge gaay yi nangu affaire bobu non touti Serigne Fallou commencé gaay fat ko parce que Serigne Fallou ku ñewon seet ko mu ne ndax taxaw nga ñaarin ku ñew seet mu ne ndax jaar nga ñaarin seet sia Serigne Fallou su bopam da bëggon dem da bëggon dem makka gaay fexel ko fat ko commencé tek seni affaire di ki ñu xam ne ni ki restez là-bas expliquer dina leer di ngeen ko leeralal sen bop di ngeen ko leeralal seen bopp man daal nee naa leen wax yu ma for wax yu nu ma waxal la wax yu ñu dugal sama bopp ma lijjanti ko dajale ko tegal leen maanaam leen tamit dem ngeen ba léegi xam ngeen ni am na luy lënd ngeen ko di tëb di xool ngeen ko tourné wee ni ko existé wul comme boog dindi leen doom yu existé wul yooyu noonu tamit eh, yu ànd ak seen ndey yoon te nu reñe xaw ma nan ngeen ko nar a defee yéen su ngeen ko dindee ne existé te te pourtant ñooñu seen doom reñe comme nag histoire de Serigne Touba bi na ngeen ko yàgg yoonu murit bi da ça va être catastrophique ça va être ñaata nit ñoo toog xilaafa bi ñaata xalif ngeen am xalif yooyu noonu yëpp ñoo bokk ndey ak baay si ñeenti jabar leen jóge dem leen ngeen gëstu loolu foofu laa yemoon nag yéen tey nu def noonu ba si beneen waxtaan nu daal di ñëw continuer waxtaan bi si comme nu ngi koy defee saa su nekk si jàmm ak euh, salaam gars yi nekk fii xam nga euh, comme nu ma waxee rek di siisu am nañ si droit ku gàkk siisu ku ku nu ne taril nga tari ba digg ba gàkk su la neexee nga siisu lolou ken mënu ci dara ya na nu yàlla jàppale nu ñëpp rek daal di léral jëm gi léral bagage yi ci barki sayidina muhammad te daal di xamni que le combat continue le combat continue kon ko le poser le poser question nationale la continue yeen seen bop seen question sax seen i waxi tëb daal nga mujjé nek ay question te dolé kuna benn question bo xamné ne man ça m'a jamais effleuré dans la tête 33 familles fu ñu dëkkoon yeah une bonne question bo xamné yeen yéen sax wala ngeen ko poser seen seen bop seen question dëggantaan tan, loolu tan, maa ngi koy boole si question merci encore sax sur le petit souffle ça c'était des choses adduna nii la moo tax am toog ñuy toog daje waxtaan toog yet teg teg ku si nekk matul ku nekk jël sotti teg nu xamante yaa ngi comprendre moo tax sama gars fu nga nekk yal na leen yàlla sàmm sàmmaale seen njaboot yi sàmm leen yéen ñëpp sàmm képp ku su nekk fu mu nekk si barki Seydina Muhammad daa di def lu gën si bépp doomu aadama daa di xam ni que daal lépp lu ñu fi wax te nga xam ni que am na ñu mu si déranger am na mu si gaañ c' est pas ça le problème c' est pas ça le problème le problème mooy ni que suñu diine gi moo gën a gaañu que ñun lu ñuy wax suñu diine gi moo nar a gën a gaañu tamit que ñun lii ñuy wax comme mbokk nag nañ ko lijjanti suñ ko lijjantee ba si kanam nu daal di dem nag xoolal defaraat toogaay defaraat kii mais ñii nuy defanteel ñoom danoo xamadi xamadi boo xam ne foog ñu defanteeg ñoom ko foog ñu defanteeg ñoom en tout cas nu def noonu peace love and harmony ba si beneen wax ciao